Our holiday cash allows you to withdraw money in Dalase using your credit or debit card through our POS system with no additional charges. This can be done both online through the phone as we are speaking or when you visit our head office at 55 Karaba Avenue. I am presently in Wuli Sutukonding and want to send $10,000 to myself and I want to do it right away. My card number is Aliu, your reference number is APS 123456, but it's after 4 p.m. already and the banks will close soon. But you can receive your money today with our APS home cash delivery service. Where can I receive it? Our agent in Wuli Sutukondi will contact you to arrange delivery of your cash to your home. Is this where Alu Jalo lives? Yes, that's myself. My name is Alfuseni Jaula from APS Money Transfer Limited and I come to deliver a transfer to Mr. Alu Jalo. Alu, can you please confirm your APS reference number for your transaction? Yes, this is fine Alu and could I also have proof of ID please? Please confirm the amount is correct Alu and send the receipt for me. Thank you APS. You are simply the best. Fomunyunganya obraisa munyunganya yourself. Rai bonde yourself for rai bonde. What? What? Sorry, sorry, sorry. Gambian Talent TV. Always filler. Entertainment, comedy, news, anything. Filler. Correct, Gambian Talent TV. Wapo wati. Jannamu. alkanal bulo bondije ala ɗum ɗum mbata kan tacce ala ya jiɓe musique comédie fen frende yalla entertainment na kam hmm. ɓulan ɗo e basa malane talent talent mm? wow one time you know me in uh, at uh, uh, gambia talent um, promotion tv and all that you get me so len buggee gis lu xew si dëkk bi ak lu waral warul si dëkk bi tv bii la fii la fii fans here and I'm the Jamai and haters. Welcome to Gambia Talent TV show, you get me? seen xool xalaatu bon and nañ ko sànni fële si mbalit gi ne li xale ndaw yi toog di ko foyee fële cause Pepper TV bu nekk si tundi Gambi gii Gambian Talent TV More is seeni baay man one pack maa ko wax bu ko di naay nga def leneen comme gars yi ñu understand ñun ñoo fi ñëw xoolal di régler lu fi di mutal lu fi manqué di def lu fi kenn iba kuriya munna nafate kuriya la iba munna nafate la bi iba kuriya munna nafate kuriya la nafigi la silamanja kula bambali la silamanja uyafalala silamanja nkomari masali bokelela nafikila silamanja jakula bambalila silamanja uyafalala silamanja muna nkomari masali bokelela yow gambia gambia ntalam albadi malam nena jeli suso ntele bale jamto bi gambia ntalen so e mamo be tantula mal jeyla aldal badi malam the queen of manding nena jeli suso the golden voice wow mbal centula mbal jegila bake bafalale ko albumo kanale visa mbako ndigi benjamin hall akana fo mo ko machallah gambia talent show Palamate nante kapitu dami Palamate nante kapitu dami Waina kala moita me feka elente wunjama Kuneka buka wana samaram melichin Hamna sube sonsi yen mi kondu noki oxygen Pa Usman yokan ma mic binah mamuna talk to them Lutah Gambia do them meaning sister Ivasa Eh ni dem Pa Usman No Pa Usman Lutah Gambia do dem show Every Sunday la on Gambia Talent Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Riverside, oh. 6 p.m. the GMT, just in case you ain't know. New them, new them, new them. Luther Gambia do them show Every Sunday they're on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm la GMT just in case you ain't know New them, new them, new them ba pare Killer Ace Sunday, Monday mode, mode Yes, yes, yes. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneen ci koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay di leen dalal fii ci seen favorite TV lu tax Gambia du dem show la fii ci Gambian talent TV ak radio nekkal leen ci gannaaw microphone bi di Pa Ousmane Diouf ni ñu koy defee saa su nekk nag ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu seetaan macha allah fu ci waay nekk rek ñu ngi naan ahlan was ahlan di leen dalal di leen tatagal ah, macha allah ah, dellu si waat nañ rek fii pour waxtaan ak yéen ñu rek dafa am xool bu doon dugg si noonu ah, ñu jéggalu ci loolu bu baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu képp koo xam ne ñuy topp foo ci nekk rek ñu ngi lay teeru ni ñuy teeroo buur di la teral ni ñuy di la tatagal ni ñuy tatagalee buur ñu dellu si waat waxtaan ak yéen defoon nañ ko last week dellu si waat ak yéen ma ne lan lañ doon waxtaanee week bu paase nii ñu ngi doon waxtaanee li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy suñ National Assembly members yi ah, bill bi nga xam ne kat rejectoon nañ ko ngeen rafetlu woon ko bu baax a baax a baax coow li ne kur nag ci biir boobu ci bill bi ma ne ñu indiloon leen am li nga xam ne mooy démonstration bi nga xam ne xew na foofu ci National Assembly bi gannaaw bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy député réew mi génn si nañ pour defar loi yoo xam ne kat ñu ne at mi jeex na ministre bi amee wàllum koom-koomi réew mi muy Mamboura Ndiaye ñëw na jàkkaarloog borom député yi euh, am ñi député yi ñi amee pencum réew mi pour waxtaan ak ñoom laaj leen xaalis ñu ne ban xaalis la leen doon laaj xaalis bi nga xam ne moom lañ bugga pour nguur gi jëfandikoo ko pour 2020 19 kon muy at mi nga xam ne moom lañ jublu si nii leneen li nga xam ne ñu ngi ci doon waxtaanee mooy media am am supplementary appropriation bill bi nga xam ne bill la boo xam ne kat loi la boo xam ne am euh, ministre bi def ko indi di laaj gaay xaalis bi ñu wax ne moom la nguur gi war a jëfandikoo ma ne kerakat ñu indi woon National Assembly members Sekouba Jaaju of um, uh, uh, uh, Busumbala nga xam ne UDP um, um, ticket la taxawee woon mu wax leen moom xelaatam ne moom kat nekkutoon foofu ca parlement bi bés bi nga xamee ne ñu ngi doon reject bill boobu noonu ñu indi leen ki nga xam ne mooy Ousmane Silla of Dooy waxtaan ak moom moom tamit mu xamal ñu li tax mu rijek bil bi ne moom kat xelam ak xelaatam ak xolam mënut ko may pour moom mu war a d'accord ci bil boobu mu óor ko ne loolu du luy yóbbu am am am dëkk bi kanam keneen ki nga xam ne jokk woon nañ ko mooy alaaji Mbow nga xam ne kat National Assembly member la for Upper Saloum euh, under di NRP ticket moom tamit mu waxtaanu nag askan bi xamal leen kat breakdown of li nga xam ne moo xew foofu ne leen ne kat moom dafa bokk ci comité bi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon regle affaire yi xaalis boobu ministre bi laajte ñoom ñoo ko doon gestu di ko kisi kisi dem ci ministres yi ak département ci laajte xaalis yi nga xam ne moom lañ doon laaj ma ne li ñu alaaji Mbow xamal mooy ne bi ministre bi ñëwee indi yëf yi lu bari lu gaay doon laajte dañ ko mujjee reject dañ ko mujjee decline ndax biñ demee ba gestu ba def seen gestuwaat kat dañ seetlu xàmmee ràññee xam ne kat lii du mun a dox moo tax gaay yi defuñ loolu noonu kon ma ne ñu dellu si waat rek pour indil leen xuusal leen si loolu am lan la ñuy waxtaanee tey nag dinañ waxtaanee diggante vice président lawyer Ousainou Darboe ak ki nga xam ne mooy président yi réew mi Adama Barrow ñoom ñi nga xam ne jamono jii kat gis nañ li nga xam ne moo nekk di xew ci seen diggante dinañ leen playal yenn videos ba pare def analysis on si diggante ñi ñaar ma ne leneen li ñuy waxtaanee mooy réeréwu leen biir li xew ci biir week bi nga xam ne am am am am am Oje Jallow moo fa nekkoon fes fa am uh, at yi passé um, gannaaw bi nga xamee ne dellu si waat nañ nag pare pour ñëw in full force semaine bi passé PPP amoon nañ li ñuy ooyee am press conference waxtaanoon ak media bi gannaaw bi nga xamee ne ñaar fukki at ak ñaar bi Yaya Jammeh jëlee nguur gi daf leen baanoon daf leen tere woon ne duñ mun a bokk ci politique yi Gambia semaine bii ñu nekk kat PPP def nañ seen first press conference ñu ngi war a ñëw def seen am congress pour taxawal seen am flag bi yara tànn seen njiiti parti am am am tànn seen njiiti parti kon ñi nga xam ne ñooy jiite seen parti bi rawatina si 2021 election bi nga xam ne moom la ñoo jublu si kon gis nañ li nga xam ne moo xew foofu noonu gannaaw bi nga xamee ne Omar Amadou jàlloo di OJ Diallo ak am kii di Bibi Dabo def nañ press conference press briefing jàkkaarloo ak askan wi jàkkaarloo ak media bi wax waa Gambia li nga xam ne ñoom loolu la ñuy plan according to dem nag pare nañ pour def seen congress bi on the muy weer bii ñu nekk nii su amee ñaar fukki fan ak juróom-ñetta muy ajuma bi nga xam ne moom lañ jublu si nii incha allah si la PPP war a def seen congress bi pour tànn ñi nga xam ne ñooy jiite parti bi ah, ah, moving forward kon loolu isa a milestone ndax parti la boo xam ne ñoom ñoo njëkk a jiite réew mi gannaaw bi nga xamee ne am nañu indépendance ba génn ci loxo tubaab yi am ñu am indépendance PPP ñoo amee woon réew mi lu mut fanweeri at ñett fukki at yàlla bi nga xamee bi nga defee nag am Yaya Jammeh xofati nguur gi ci seen loxo bi mu defee coup d'état bi mu baan seen parti bi nag ne leen fii du ngeen fi mën a taxawaat élection ñu mel ni OJ ñak nekk fa ñu bari ci ñoom ñu dem turu transition ñu def ay commission of inquiries gestu seen affaire baan seen parti bi ne duñ taxaw ci biir réew mi kon gannaaw bi nga xam ne Yahya Jammeh génn na fa nag PPP OJ sampanan ndëndam di contest ci élection si élection bu passé nii mu bokk ci ci si passé nii yëpp mu bokk ci naat ak yeneen am mbootaay yi nga xam ne coalition yi nga xam ne jéemoon nañ koo setop mënutoon a nekk bii bi daabo nga xam ne nekkutoon ci réew mi nag gannaaw bi nga xam ne élection am na ba change of government happen si waat na ci réew mi moom mi nga xam ne Bakary Bunja Daabo ah, ku ko xamul dégg nga ko ci Gambia nga president for a long time am am am am foofu ci Gambia nekkoon na ambassadeur ci Sénégal nekkoon na am ministre ak yeneen portfolio yoo xam ne amee woon na ko bii Bibi boo nag gan ci réewi Gambia duggan ci PPP suñ ne PPP ñooñu kat bokk nañ ci ñi sampandë sampandëndami rawatina in the later part of PPP ñoom Bibi Dabo ñoom OJ Jallow ñoom Cheikhou Sabali am ak ak ak ñeneen yi nga xam ne ñoo bokkoon ak Jawara parti bi nekkoon foofu noonu ay ministre jàppale ko kon su Bibi dellu si waatee ñeneen ñi nag ñu ngee laajte ne ndax Bibi daf doon ñëw pour sampa pati boppam ah léegi nag leer na gannaaw Bibi wane na boppam moom ak OJ Jallow ci PPP loolu dafa wane ne kat ci euh, bii bi euh, euh, parewut pour sampa pati boppam wéere nag moom la taxawal or not OJ Jallow am nañ ko on record over and over and over muy wax moom OJ ne moom kat amatut interest ci politics amatut interest pour taxaw pour jiite dafa tete xale yi lese gune yi wan leen yoon ñu samp seen dënda pour taxawal PPP li nga xam ne moom lañ fi commencé woon ñu jekkali ko mu ne loolu ko tax a ma ne am ku ma waxal démb ba mu ne ma yow kat OJ am foogut ne moom loolu xelu na ci moom su fekkee ne ideas ak idéologie si am PPP yi ak yu bari at yi yëpp moom moo ci nekkoon di xeex foog na ne am na solo pour OJ taxaw jiite parti bi ndax you can only effect change for the most part from within soo nekkee ci biir ndax képp kum ngeen ba tamit taxawal la ah lu mel ni li ñuy wax si nii rek ci président Barrow ak lawyer Darboe lu mel noonu mën naa xew ndax OJ su nekkut ci biir képp ku taxaw ci parti bi képp ku nekk presidential candidate képp kuy njiit bi su fekkee ne PPP gagné nañ dafa am cabinet am dafa am yeneen advice am ba dina am people that would have influence ba pare su ñoo wote wala ñuy def yenn ay at cabinet level OJ du mun a nekk foofu pour influence yenn change kon kooku mu ngi recommend ne pour OJ kat jiitu lese xale yi suy benn taam laa toog sax wala ay at laa toog shape of affairs yi bem taxaw mu door a joxe lenge yi kooku loolu la xalaat ma ne ko ah, loolu kat sa xalaat la yéen lañ fi toogal seeni noppa la ñuy dégloo seeni bët la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee kon ñu ngi leen a nuyu di leen dalal di leen tatagal fii ci lu tax Gambia du dem show di show is live dinañ ibbi line si kanam pour ngeen participer yéen ñu bëgg a participer seetaanee YouTube ñu ngi leen ay bégee di leen dalal bu baax a baax yéen ñu ñuy seetaan on Facebook yi tamit ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax di leen fàttali rek ne the show is live di leen ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa is very expensive to produce these programs to bring you these programs suñ leen koolalee National Assembly members yi koolal leen ñoom OJ koolal leen ñeneen ñi nga xam ne ñoo taxaw am pour yóbbu réew mi kanam weda si politique la weda si musique la weda si entertainment la théâtre kat yi ak yeneen yi xew ci réew mi yëpp ñu leen koy génneel fan yi yéen a ngee toppa suñ semestre avenue programme bi loolu yëpp muy programme soo ne yéen a ngi ko enjoy leen ngeen jàppale ñu bàyyi clicking yéen ñu ñuy seetaan Facebook su ngeen seetee below next to seen comment section bi on the right side of the share button di ngeen fa gis benn ye green circle bu am love sign in soo ko cliquer dina la yóbbu e a secure am um, site where you can make a donation of five dollars a month Um, foog nañ ne loolu dinañu mën a jàppale Facebook kat ñoo realize liggéey bi ñuy def ak ni mu méttee ñu ne ñu ne kaay leen ñu jox leen this opportunity we create the platform pour seen supporters yi ñi leen a seetaan ñu mun a subscribe to seen channel bi pour di leen am am am donate five dollars a month we call it a donation um, ñu ngi subscribe pour seetaan channel yi suñ mbokki sénégalais yi channel yi suñ mbokki américains yi ak Angleterre ak yeneen place yi nekk we pay for the cable We we pay for our our ruku box ak yeneen yi nga xam ne suñ Netflix yeeg yooyu yëpp kon suñoo seetaane Gambian Talents ñu leen a indil xibaar yi lëmbe réew mi di leen indil xibaar yi toog ngeen see gis seen boppa kon ngeen mun ñoo jàppale microphones yeeg computer yeeg caméra yeeg lampa yeeg mixas yeeg recorders yeeg yu bari yi ñuy jëfandikoo ak crédit bu ñuy use ak transportation as we speak right now suñ team bi ñu ngi foofu noonu ca Gambia ci dimanche ji nii fële ca Jembe Hotel GPU Gambia Press Union ñooy launch di Gambia Media Council Kirib honorable Batambe du minister of justice wala attorney general bi mu ngi fa suñ am ñoom DA Jawo former minister of information mu ngi Ibrahima Silla current minister of information mu ngi fa Baba Galle Jallow ñu these are all great men of the Gambia who are there this minute our team is covering that event for you guys I mean gis ngeen Aliya Aida ñëw live and the thing cut off because ñu ngi am internet problem kon dafa am jumtuwaay yu bari yuñ soxla yoo xam ne su ngeen ñu jàppalee dina tax ñu gën koo mun a def plus we have 45 young people ñoo xam ne dañu leen indi as interns di leen jàngal métier bi videography photography journalism graphic design, web design, you name it. ñi nga xam ne they are attending tertiary institutions like the University of the Gambia te amuñ practical knowledge wala ñi nga xam ne dañ leen delloo muy back way returnees yi wala boog ñi nga xam ne ay school drop out kon ngeen jàppale ñu mooy jàppale seen boppa duñ am taay duñ damma duñ sonna pour di leen fàttali loolu ngeen share vidéo bi du leen wàññi dinañu yokk ñun kon ñu ànd ak yéen rek ci programme bi kon PPP foofu lañ toll sampa nañ seen i ndënda ñemeñu ne Bibi Daabokat soo gisee taxawalut parti boppam li ko waral mooy dafa am yaakaar gannaaw bi nga xamee ne OJ wax na ne moom taxawut gannaaw bi OJ waxee ne moom taxawut kon who is the next option ñeneen ñu ne Bibi Daabo la OJ kat moom li mu doon wax taay yëpp mooy ne xale yi youth si young people bi la moo jéem a empower pour jox leen opportunity weera nag OJ dafa jot test de waters di try to see naka lañ koo gisee ak naka la fa demee it's a different story waaye loolu mooy li nga xam ne moo xew foofu ca PPP keroog ci seen press conference bi wax nañ journalist yi laaj leen yu bari including affaire yi am am APRC ah, nga xam ne dinañ ci wax nekk ah, gars yi tontu ci yu bari kat OJ ne ñoom kat waa APRC war nañoo mandu mandu gu day ni ah, bàyyi noonu ndax ñoom biñ jëlee nguur gi forcé xorpati ko nangu ko ci loxo nit ñi nangu ko ci loxo Gambien si nangu ko ci loxo Saa ak ñoom dañ ñëwoon baan seen pati bi kon ñoom APRC kenn baanut leen seeni oto lañ nangu ak seeni jumtuwaay kon ñoom waruñoo wax dara. loolu mooy li nga xam ne ñoom OJ waxoon nañ ko press conference boobu mu ngi foofu noonu nag ci internet bi you guys can watch it ah, on the 28 mooy gaay seen congress bi muy ajuma buy ñëw nii dinañ leen jéem a koval event boobu pour ngeen gis ko leneen la na xew ci dëkk bi askan bi mbokka yi dinañ ci waxtaan incha allah um, ñu jël dis break rek suñ dellu si waatee ñu gën a xuus si waxtaan bi don't go anywhere Palama de nunan te kabitu dem Wai nakala feka te wun Kuneka buka wana noki oxygen Pa Usman yokan ma mic bi talk to dem Gambia du dem sister Iva Eh dem Pa Usman No Pa Usman Gambia du dem show Every Sunday la on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Tuf Iva Oh 6pm la GMT just just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambian Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad 6pm la GMT just in case you ain't know Knew them, knew them, knew them ba pare ñaanal pare ñaanal Gambia tamit Pa Ousmane la yow moom lañ bokk Team Cook sa bopp la Team Cook sa bopp la Killer Ace Sunday Monday Play Ha ha ha ha ha ha! good morning good afternoon good evening fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna ñu dellu si waat ak yéen rek pour continuer waxtaan wi ma ne leneen lana xew ci suñu dëkkaa ci semaine biñ génn nii APRC def nañ seen congrès bi ñoom tamit pour fàttali leen rek ñi nga xam ne xamuñ yéen a ngi gis ne ñaari weer yu passé nii parti yi ci dëkk bi parti ci réew mi ñu ngee def congrès congrès mooy jotaay bi nga xam ne fala mbooloo waa pati bi di dajaloo tànn ay nit ñu ñëw tànn ñu war a jiite pati bi kon gis ngeen am UDP uh, def seen bu semaine bi la passé uh, gis ngeen of course waa GMC ak yeneen parti ñu def seen bos kon ci jamono jii nii um, APRC def nañ semaine bi passé fan lañ ko defee ca Buyaam uh, gannaaw bi nga xamee ne waa APRC tesee nañ nag ñoom it gaaral nañ kàddu ñoom seen mbootaay waa APRC pati bi ñëpp d'accord nañ ne tànn nañ kii di former président Yaya Jammeh pour mu jiite seen pati bi 2021 lañ fooglu ne dinañ ci am élection walla ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ne kat président Adama Barrow du wax waxit three yées yi mu doon wax dina ci jàppa dina ci delluwaat muy ñetti at yi mu waxoon ne si laa taxaw ñenn ñi ñu ngi fooglu ne déwén dinañ am élection vote en wut xam na lu bopp antan président Barrow suñ ci waxtaanee di ngeen xam ne kat président bi parewut pour give up wala wax waxit la nar waaye li nga xam ne mooy li xew rek moom la ñuy wax am waa APRC former président Yaya Jammeh lañ tànn pour mu jiite seen pati bi ba 2026 loolu fii ba yeneen juróom-ñaari at si kanam moom lañ tànn pour mu nekk seen jiiti pati moom na tànn tamit muy seen flag bi yaara muy presidential candidate pour su fekkee ne ñu ngi war a taxawaat sampa ndënda xam nga mun ngaa jiite pati te doo nekk flag bi yaara bi mun ngaa jiite pati te doo nekk flag bi par exemple dooy am nga fa Sidiya mu nekk di chairman xalifa nekk di secrétaire général ba pare nekk di flag bi léegi yeneen dëkk yi tamit dañ koy def amun nga jiite parti bi te doo nekk flag bearer bi doo nekk kuy taxaw pour presidential candidate waaye APRC Yaya Jammeh foma president moom lañ tànn def ko flag bearer ba pare def ko am am am def ko parti leader bi moom mooy continuer pour jiite parti bi 2021 election moom lañ tànn 2026 26 yi tamit fii ba yeneen juróom-ñetti at juróom-ñaari at kanam moom lañ tànn pour mu parti waa APRC ba tey it leneen luñ bind luñ d'accord foofu ci seen meeting bi mooy ne ñoom kat dinañ jokku ñii di nguuri Gambia nguuri président Adama Barrow dinañ jokku ñii di United Nations di mbootaay bi nga xam ne mooy ame doxal wàllum àdduna bi dinañ am seet tamit ñi nga xam ne ñooy ECOWAS ak yeneen mbootaay yi nga xam ne dañ am loxo am cër ci kàddu gi nga xam former président Yaya jeme mi fi nekkoon waxtaan na ko ak wa ak ak ak ak ñoom mbootaay yooyu ak nguuri réew mi pour kat ñu bàyyi Yaya Jammeh mu dellu ci waat ci réew mi toog jàppa njàmburam pour kat ñu bàyyi Yaya mu dellu ci waat ci réew mi jàppa njàmburam pour lan ñu delloo ko bépp bagage boo xam ne jëloon nañ ko ci moom ak bagage yi nga xam ne jëloon nañ ko ci ñoom seen parti muy APRC leneen loo xam ne waa APRC taxawal nañ ko kat seen mbootaay bi pare nañ pour jàppale wante foog nañ ne ñoom they are big and good enough revamp nañ seen mbootaay bi pare nañ nag pour jàppale wante pour jëlaat Gambia liggéey Gambia. gannaaw bi nga xamee ne Fabakary Tombong Jatta ki nga xam ne mooy interim leader bi woon bi moo joxe kàddu di gaaral kàddu fàttali na Gambien si liggéey bi rafet bi nga xam ne moom la fi APRC def ci njiiti former président Yahya Jammeh joxe na comparison lii nga xam ne mooy nguuri former président Jawara wax gox yu nekk ci biir Gambia ñaata lopitaan na fa nekkoon balaa Yaya Jammeh di jël ak ñaata fa nekk bi Yaya Jammeh di dem wax ñaata school ñoo nekkoon ci gox yooyu balaa Yaya Jammeh di dem balaa Jawara di dem ak bi fa Yaya Jammeh nekkee ak ñaata school sa fa nekk ak yeneen projets yi nga xam ne yëpp wax nañ ko muy bridge yi nga xam ne defar nañ ko yoon yi nga xam ne Yahya Jammeh defar na ko ak yeneen yi nga xam ne def na ko jàngu yim indi ci réew mi ak yeneen yi nga xam ne def na ko ci réew mi fàttali na nit ñi Gambien si loolu nekkat loolu dafa am solo Gambien si waruñoo fàttali fi Yahya Jammeh def te ñoom pare nañ pour ñëw continuer liggéey bi nga xam ne moom lañ commencé woon te gannaaw Yahya Jammeh moo sombi woon lii dinañ ko jox mu naan ko kon loolu mooy li nga xam ne waa APRC d'accord nañ ci ñoom ci seen jamono jooju nga xam ne ñu ngi doon am def seen congrès bi ñu ndokkale Yaaya Jammeh nag ci li nga xam ne gars yi tànn nañ ko képp ku ci foog rek yaakaar fooglu ne Yaaya Jammeh am na am di potential and di capability pour dellu si waat Gambia am incha allah mun ngeen ñoo kool rek pour join programme bi.

gàcca ngàllaama Yaya Jammeh mi nga xam ne di elek ngeen ko pour mu jiite seen parti lenn la firnde mooy ne ay gor ngeen ndax góor kàddoom nekk ngeen faak moom mu dem ngeen continuer pour delloo ko njukkal loolu dinañ leen ci jox crédit waaye lenn dinañ ko wax ma ne bot enuwut waay xam na lu boppa antan bot enuwut waaye xam na lu boppa antan United Nations la EU la ECOWAS la President Barrow la these are people and institutions who don't have control over li nga xam ne moo xew ci bi nga xamee ne yéen yéen a doon jiite nguur gi Fabakari Tombong Jata wax na the developments that took place infrastructural developments ak yeneen yi waaye ñu ngi gis last week bu passé nii la American government bi release ne they have enough evidence ne former president Yahya Jammeh was a corrupt leader the same time gis ngeen ne moom ak njabootam dañ leen ban from entering America last week waxuñ ci loolu ñu bari ñu ngee laajte ne xanaa du doomam yi Amérique lañ juddoo waaw kay Amérique lañ juddoo wat luñ xamut mooy diploma bu sa doom juddoo Amérique taxut mu nekk American citizen loolu ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi ñoo xam ne fii lañ nekk as ordinary citizens ñoo la lafi seen njaboot di juddoo ñu am passeport Amérique ñu bari ñu ngee laajte lii ñu bari understanduñ lii ñu bari xamuñ lii ñu ngee laajte ndax Yaya Jammeh doomam yi American citizen lañ because feeling lañ juddoo rek dañ war a nekk doomi America déedéet doomi Yaya Jammeh yi amuñ American passport they are not American citizens and America dañ baan Yaya Jammeh ak njabootam from entering here right now mënut fee ñëw so Yaya Jammeh is accused of economic crimes he is still of course innocent until proven guilty waaye bët enowul xam na lu boppa antan gis nañ jaane commission bi ak lim identify ak liñ came out bi ñu ngi TRRC bi mu ngi commencé si next month ñu ngi dégg family si ñu ngi génn di wax as we speak right naa wax naa leen ne ñu ngi launch di Gambia Media am um, Council fële ca Jembe Hotel this minute in honor of Dada Haidara gis ngeen dégg ngeen family njabooti Dada Haidara génn na wax dégg nañ ñoom Basiru Baro seen njaboot yi génn wax njaboot yi ñoom Solo Sandeng dégg nañ ñoom Fatmata a wax dégg nañ ñoom Nogoy Njaay génn wax April 10th and 11 victims ñoom Chief Ibrahima Mané ñoom Koro ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne rey nañ leen ñi nga xam ne dañ leen toocoo ñoom Imam Babali dégg nañ seen stories ñoom Fatou Camara dégg nañ seen stories and other younger people. Fogna, yeah, Jammeh in his right state of mind with no disrespect foguma dina talk, ne moom dafa delo si waat Gambia ngir nekat president ni réew mi yàlla mooy dogal Chika kàddoom moom Yaya Jammeh moko ko waxoon bi moo taxaw moom moo ko waxoon mu ne dégg na gis na ne Gambian people bi ñoo ko vootaloon for 22 years ñoo jëlaat seen nguur ci loxoom mu gërëm Gambian people bi tànk leen sant leen ci li nga xam ne moom la ko gaay defal ne moom kat xam na ne am am am am am am lim defal Gambia liggéey na fi mu dénk président Adama baro edda ko am uh, woon ko wax ko ne na jël kaaraange réew mi seriously with him kon lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la ñu war koo uh, bàyyi xel uh, ngir Yaya Jammeh daf du dellu si waat Gambia am su fekkee ne am yéen yéen foog loolu walla yéen a toog loolu am am am ci am am yéen yéen a loolu is very important pour ñu reasonable is very important ñu xàmmee ràññee xam ne kat. This is not a joke. This is not a joke. This is not a joke. At the end of the day, Yaya lim wax ñun ñep dégg nañ ko. And we would not do but play that audio for you guys. Ngeen déggal ko seen boppa yeen seen boppa. Fi Yaya di consider defeat to former president uh, to president Adama Barrow. Ngeen déggal ko seen boppa. Dinañ leen indil audio bobu nonu ngeen déglu ko seen boppa léegi ni su ko defé ñu continuer programme bi rek. I take this opportunity to congratulate Mr. Adama Barrow for his victory it's a clear victory because our system says a, clear, a simple majority. I wish him all the best. And I wish you all, uh, I wish all Gambians the best. As a true Muslim who believes in the Almighty Allah, I will never question Allah's decision ko déggal de te bu li ma def duma musa ak yàlla ci li yàlla dogal I came on a Friday 22nd of the month of July 1994 today Friday the 2nd of December 2016 you Gambians have decided that I should take the vaccine. yéen ajuma laa ñëwoon friday di 22nd bu weeri julaay amee ñaar fukki fan ak ñaar tey la ñaari fan ci weeri décembre 2016 loolu muy lan muy ñaar fukki atak ak ñaar yéen Gambien yi decide ngeen ne bëggatu leen ma jiite leen. boo dee for somebody to lead your country. wateel ngeen keneen pour mu jiite leen. and I wish I'm, I'm calling you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I have not reason to contest the will of the Almighty Allah. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country will be in your hands in January, and uh, you are assured of my guidance on your, uh, your transition, and I mean uh, selecting who becomes member of government. But you have to work with me as I pack to go to Kanila, so that I hand over the State House to you. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no uh, ill will, and I wish you all the best. Yola Gambian Gambien si tànna awma suma xol Mang lay gërem di la santa di la ñaax nga liggéey ak man ma jappalé la loolu lay yaaya wax Adama baro Thank you. And uh, Adama Baro, president-elect at the time, Neko Gambia Munyu, Opa, Nyun, Nyep, Gambia moo gën am solo ñun ñëpp gërëm naa la ci sa li nga liggéey bi nga fi def ci ñaar fukki at ak ñaar yi nga fi nekka ñun dinañ continuer yow fi nga em Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. Pardon? I'm here with my team. Convey my congratulations to your entire team. xanaa President Yaya Jammeh ak President Adama Barrow former President Yaya Jammeh ak President Adama Barrow dañ fàtte thank God for technology thank God for the media. this is transparent this is the will of Allah and as a Muslim I accept it in good faith the Gambian people have chosen you. After 22 years, I'm grateful to the Almighty Allah for that. I remember I came on a, a Friday, 22nd of July. And if I lost on Friday, the 2nd of December. Kon kan mo kan moy nax is the will of the people. Wax nako Wa Gambia decide nañ. Wa Gambia pare nañ ci Wa Gambia tan nañ keneen. Yalla ko dogal. 22nd but the 2nd of December Allah start Allah is telling me that my time is up and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank, thank you very much. I think these Fridays are, uh, are uh, repeating in the Gambia. Yes. I was born on the Friday. What what uh, what date? It was 15 February 1965. 1965? 1965, yes. So you were born before independence? Yes. So you are a few months older than me. All the best. Uh, well, I think that's why they didn't call you old pa. I wish you all the best, Mr. Barrow, okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. And you have my full support. Let us make sure that you work towards maintaining peace and stability. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything in anywhere in Africa. su fekkee ne am na dara lu ma neex ci kàddu gi li ma ci gën a neex man mooy lim ko mujjee eta edda noonu lim ko mujjee digal without peace and stability su jàmm amut ci réew mi doo am dara démb gis ngeen ñu dugal ci suñ Facebook page bi Mama Linguère Sarr di wane ne dafa dem Bakaw am ku ko doon jéem am agressé foofu ñu leen ku ko doon jéem a roob ne xale yu jigéen ñi dañoo sol seen wiig yi dem ci programme yi génn na xale yu góor yi kof seen wiig yi daw ak moom ne am taxi driver bu ko ñëw carré kal ko waaye mu ngi log moto mi ñuy jéem a ibbi bunti moto bi kon peace and stabilité bi mu doon wax président Adama Barrow de ñu ngi ko see ñaax pour mu gën see góorgóorlu ndax nu mu munti demee loolu la kon lii nga xam ne a Jammeh wax na ko former président eh, naka wax na ko président Adama Barrow ne moom pare na ci nguur gi d'accord na ne Gambien yi tànn nañ kuñ bugg a tànn waa APRC ñëwaat ne Yaya Jammeh la ñoo teg gis nga nañ leen seetaat yëf yi bu baax a baax a baax if APRC wants to be taken seriously rebrand leen seen boppa rebrand leen seen boppa defaraat leen seen toogaay lépp loo xam ne da ngeen ko doon def ci loo xam ne mistake la te bi ngeen toogee ci nguur gi ngeen génnee ko nga Yaya Jammeh ñoo toog Gambia this minute is it even safe for the country is it even safe for the country number two Yaya Jammeh ñoo nekk Gambia with all the hearts that are touched supposedly ak interrogation, yi them on yëpp ak everything Yaya Jammeh moo leen gën a xam lii duñ ko wax di lamisoo duñ ko wax di ree duñ ko wax di jooy te xam naa ne neexut waa APRC e waaye it's not realistic ida yaaya jame mu ngi leen a nax wala yéen koo nax wala yéen ngeen nax seen bopp with all due respect Yaya Jammeh moo bàyyiwut Equatorial Guinée ne dafa ñëw Gambia pour jiite leen yéen in 2021 in 2021 we are saying this because yal nañu yàlla may fekkee yal nañu yàlla may fekkee ba 2021 di ngeen xam ne li doon wax lu am la Yaya Jammeh moo génnut Equatorial Guinée ne dafaa ñëw pour jiite leen yéen yàlla nag mooy dogal lu nekka dune ne in the amut président suñ génnee woon ñu ñëwaat taxawaat ñuy amaat opportunity but depends on what it is Yaya Jammeh has been accused of so many things. There is no doubt if Yaya Jammeh is to step his foot in Gambia now, then go arrest. Then go arrest. Because he is accused of certain things. Yankuba they were working with him there is no doubt that Yaya Jammeh will be arrested if he comes to Gambia te yaaya mo leen gën a xam loolu kon waa APRC kàcca lama am ngeen every right pour def li ngeen bugg def an loolu ngeen cuus dinañ leen ko respectal waaye liñ leen a wax de ñu bàyyi ko xel ndax su waxtu bi jegee dinañ ko xam kon foofu lañ toll ci li nga xam ne APRC ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan di déglu Gambian Talents TV bu baax a baax Am baax Ousmane Diouf mu ne APRC and UDP Sadikhulai Nyang mu ne security is the first key to nation development but they are all busy building their party and agendas ma ne ndax Gambia dina dem ah, today is hard talk Gambia needs security and proper security we getting tired of all these dangerous things happening most of the time ah, in Gambia Gambia kon ñu ngi leen ay bëggee sa Sadi Xulaay ak képp kuy déglu képp ku ñuy seetaan fu ci waay nekk rek yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ci YouTube bi ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal bu baax a baax a baax lu tax Gambia du dem show la kon ñu continuer rek ak show bi am niñ leen ko waxee ci beginning bi am National Assembly bi keroog biñ toogee fii di waxtaan ak yéen xamal nañ leen indil leen ñu mel ni ñoom National Assembly members yi Alaaji Mbow ñu mel ni National Assembly members Seexu Ba Jaaju ak Ousmane Silla ah, gannaaw bi nga xamee ne loolu passé na ak National Assembly bi biñ rijegee bill boobu noonu bañ kañ leen fi ba pare gars yi taxawaat nañ nag ñu sànni karta pour bill boobu nga xam ne moom lañ doon am ah, waxtaanee gars yi sànnil nañ ko karta ñoom National Assembly yi pour pass bill bi and how did they pass the bill um, of course at the end of the day ñoom ñu ngi wax ne am um, uh, uh, dafa am few things yoo xam ne moom lañ nettali ne moo tax ñu pass bill bi um, keroog bi ñoo interview ñoom Ousmane Silla wax nañ ñu ne dañ ko reject ministre bi dafa ñëw ñu delloo ko yëpp ne ko na dem ak bill bi ba déwén mu dellu si waat indiwaat ko ministre bi xaarul ba déwén ay fan lañ ci teg mu dellu si waat kon uh, li nga xam ne moom la gars yi paas loolu la ñuy am indi si kanam ni waaye duñ def dara lu ñu jokku ki nga xam ne mooy am ah, Ousmane Silla ñoom waa dooy nga xam ne kat ci suñ xam-xam bu ndaw ñoom votuñ pour bill bi ñoom waa doy dañ vote dañ dañ decide pour abscon ah, pour abstain from voting gars yi sànniwuñ karta kon duñ def dara du ñu jokk Ousmane Silla rek of dooy to si ñoom fan lañ toll ak lan moo tax moom ak xalifa am ak waa doo yi nangu ñoo votal wala votaluñ bill bi nii kon ñu ngi leen ay bëggee leen gërëm di leen santa leen fàttali rek waaye ñu ngi jokk Ousmane la comme niñ leen ko dee waxee ah, xaalis lañ dee jiwis pour jënda crédit bi nga xam ne moom la ñoo koolee National Assembly members yi nii kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu ndax dafa cher Skype crédit la ñoo jënda and is very expensive kon duñ def dara duñu jokk Ousmane Silla rek pour waxtaan ak moom to see why he did not vote um, balal ñu rek ci loolu foog ñu dokkool boobu rek xoolaat ndax ni moo demee kon ñu ngi bëggee képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan ci jamono ji Ousmane Sylla lañ nekka di xool rek of doy pour jéem a waxtaan ak moom à si ñoom lan moo leen tek ba tax nangu ñoo votal bill bi nii gars yi nanguwuñ ko sànnil karta kon ñu déglu Ousmane la rek pour waxtaan ak moom salaamaaleykum salaamaaleykum honorable yes honorable waaleykum salaam Pa Ousmane Diouf ma ngi laa kolaat ci beneen yoon ci lu tax du dem show fii ci Gambian talent TV. waaw. kerak ci dimanche ji ci waxtu wi maa ngi jàkkaarloo woon ak yow fii di waxtaan ak yow ci bill bi nga xam ne da ngeen ko rejectoon muy National Assembly. waaw. ñu teg ci ay fan ñu dégg ne bill bi paas na. muy li jaaxal askan wi nag askan baa ngi jaaxle. Ah, ci xam-xam bi jot a am ne yéen waa doy. paasu leen ko mhm. nangu leen a mhm. vote ah, pour ville bi mhm. ah, ñuy laajte rek lan moo tax lan moo wécceeku ndax yow bi ñu waxeeg ak yow keroog ci dimaas ji dang ñu xamal ne kat dangeen wax ministre bi pour mu delluwaat ba déwén mu dellu si ak bill bi kon lan moo wécceeku bi yoon. am nga yow da nga ma call rek joxuloo ma notice da ma call rek nga bëgg ma wax ak yow am naa yaa ngi live. Mhm. waaye xam nga ñun duñ daw interview. waaye li ma wax mooy waaye lu tax waaye lu tax ngeen waaye waaye waaye doy ndax yeneen parti si nekkuñ fa lu tax lu tax ngeen a wax ne doy bokkul waaye. ma laaj la loolu waaye lu tax ngeen ne doy bokkul yeneen parti doy rek fa nekk parti. dedet yena abstain de. sen nga li xew namba gis yéen abstain. abstain yena sané kan wut abstainut hmm? kan kan mo abstain doy kan. yow. ak xalifa kan mo abstain yow yow da nga sané wa man maa ngi abstain mo man waa abstainuma man maa ngi abstain ne ok. ok abstain ñu ok yow vote nga. process bi si boppam. process bi ci boppam non man no mo vote process bi fam was float, te du ma bokk si loo xam ne dafa flawed ko ok. bi si am nga dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a jël di narratif see nga ñun man Ousmane Sylla suma responsabilité xam naa ko bu baax a baax man ma toog kenn du ma put pression su loolu waree am xam nga wax naa ko rek si interview ba su may waree toog benn ñu ma bët put pression mhm. di ma wax lan moo inte si nit ñi mu ne man xawma ko den man dama resign dama resign Mm-hmm. man xam naa lan mooy responsibility xam naa lan lan lan lan lan lan lan la nit ñi soxla lan la intéressé nit ñi section one one two of the constitution of the Gambia dafa wax ne national assembly members dañ am two things yoo xam ne moo leen war a gaay ñaari mbir mm-hmm. benn bi mooy national interest ak seen conscience waaw ak li nga xam ne tam dafa difoo ak loi waaw waaw loolu man xam naa ko bu baax a baax a baax a baax moo tax lu ma wax lu ma def nit ñi daa da jiital waaw li xew nag li ñëwoon suñ kanam. jaarutoon alutoon yoon. Mhm. section one five three daf ko daaxa. Mhm. ba nga xam ne su ma si bokkee sax daf ko légitimize moo tax bokkuma ci man ñun xamuñ constitution bi ak léemaan bi. waaw déglu soo ne section one five three lan la section one five three wax. waaw li section five five mooy ne mooy ne président mooy ne président bi. waaw. gannaaw boo xam ne dem nañ ba d' accord. def njëli réew mi ne lii lañ soxla pour réew mi. waaw at bii ñëw nii. waaw. dañ ko war a échoué léegi tànneef yi. waaw léegi tànneef yi ñoo war a nangu. waaw nguur gi mi président bi dafa yónni ndawam ndawam nag ki mu war ki mu yónni si mbiri affaire yi réew mi koom-koom yi mooy ministre of finance. waaw kooku président fa ne surtout président bi. Mhm. su ñëwee wan ñu nañu. Mhm. at bi ñoo dugg si nii. Mhm. ñu ngi yaakaar ne lii mooy am lii mooy nekk si alal gi dugg si kees si nguur gi lii ñu ngi ko jëlee si réew mhm. lii xëj na bor laa nekk mhm. lii xëj na dañu koo may mhm. lii xëj na tax la bii mooy euh, tax la bii bii non tax la revenu la bii tax revenu mooy li ñuy ñëw loo xam ne tax la ah. bii li dugg si la loo xam ne du di nekkul tax waaye lu dugg si la si kees si nguur comme lay sin seeg yooyu noonu nañu lii nii la toll liñ bëgg nag fore tamit ci at bii ñëw si nii mooy ne lii dañ ko bëgg a dugal si njàng dañ ko bëgg a dugal si wérgu yaram li dañ ko bëgg a dugal si ndaw yi li dañ ko bëgg a dugal si jigéen ñi comme lu mel noonu waaw su ñëwee wax ñu loolu noonu ñun tànnee fi ñu ñoo war a toog waxtaan waaw loi bi daf ko may ne su ko isee ñett ko resi ñetti fan ñetti ñetti fukki fan balaa at bi di jeex at bi nekk balaa moo jéem mooy tati des balaa at bi di jeex dafa war a isi loolu su ko isee ñun loi may nañu tamit ñun ñaari bésu aye mooy li ñuy wax two weeks yoo xam ne ñun nañ ko xelaat waxtaan daage mooy li ñuy wax débat ñu daage waxtaan ba pare dina am si nangutoo gannaaw bu ñu defee loolu noonu moom dina ñëw nag loolu laa jël loolu ñu ko woowee estimate mooy government mooy dafa nekk estimate of uh, government revenue and expenditure for for a particular year mhm. kenn waaw gannaaw bu ñu defee loolu noonu moom su suñ def da waxtaanee ba approuve ko moom na isi nag la ñuy wax bill bill mooy kénne mhm. isi pour euh, government mooy budget bi loolu ñuy budget su budget fii ju la ko isi su ko defee ba pare ñu isi ñu bill bi ñu waxtaan suñu waxtaan fee loolu noonu doy bu nekk ñu seet lii fii la war a dugal lii fii la war a dugal loolu def nañ loolu noonu ba pare waaye loolu dafa euh, loolu président bi moo kii kii moo ko war a def naka la tuuti euh, ministre bi su defee loolu ba pare ñu ah, ñu nangutoo ko. waaw suñ ko nangutoo loolu mooy nekk alali réew mi. waaw waaye nag li section one five three wax. waaw one one one one one one five three mooy téeméer ak juróom fukk ak ñetta li mu wax mooy ne. Mhm. gannaaw bu ñu defee loolu ministre bi mun naa ñëwaat nañu ah dañ waxoon ne daal nangam lañ soxla pour njàng. nangam lañ soxla pour pour pour pour wér gu yaram. Mhm. waaye ñun liñ xayma woon. nangu ko nangutoo ko dafa gën a néew liñ soxla fi mu nekk gis nañ ne daal soxla nañ loo ko loolu. Mhm. loolu nag mu ngi ko supplémentary waaw supplémentary aha go ahead appropriation estimate waaw hmm? loolu loolu ko ooyee hmm. suñu isee loolu noonu nag ñu leen bëgg dañu bëgg ngeen yokka hmm. léegi-léegi si am xew-xew yoo xam ne xelaatuloo ko woon mu nekk xew-xew bu ñëw comme lu mel ni disaster ak yooyu noonu su ñëwee ñu ne ah disaster am na de tag nguur gi bugga na see fere nangam. Mhm. te fere boo jotuñ ko woon waxuñ ko woon li fi ñu woon bokkutoon si. Mhm. bi ñoo bi ñoo nangutoo ah, mhm. njël mi mooy budget bi. ba def ko mu nekk am appropriation act. soo si kaw loolu noonu de soxla nangam. mooy ne loolu moom mun naa am loolu moom loi may na ko bi. mun naa ñëw si comme lim ñëwoon lim njëkk a ñëw am one point am am. um, uh, two eight, one point oh, one one wow, one point one point one two one two um, one, uh, billion wow bim in the si suñ am um, gëstu bu ndaw biñ def yéen yéen a ngi mujjee approve about five hundred and fifty seven million déedéet ñun dañ taaxoon loolu noonu man bëgguma ñëw foofu li ma wax mooy ñun dañ taaxoon loolu noonu ndaxte li mu wax mooy maa ngi laa wax one five three yaa ma wax one one five three laa laa wax lan la tekki waaw nga dem a tekki nga firi ko nit ñi waaw moom laa wax ma moo wax ne ministre mun naa ñëw comme gannaaw li ma wax ne mun naa ñëwaat si ñun nañu mm. dama soxlaat xaalis loolu noonu lu jaar yoon la waaw waaye li li li li bu wax mooy ne waaw bunta boobu li mu wax mooy ne li moo ñëw laajte si dafa nekk loo xam ne luñ farewut la te moom lu ñu ñëw laaj si dafa moom lu si fere loolu nag loolu la lu wax daaxa. soo soo yow su ma la ah, soo su ma la wàññi ko dem ba wàññi ko balal ma dama bëgg a understand lii. loi bi lu mu wax mooy ñoom luñ fereegut loolu lañ war a ñëw laajte ne dañ dese ñaari semaine wala weer ci at bi. fereeguñ ah, nangam ah. loolu lañ bugg a ngeen jox ñu waaye su ma la understand su ma la su fekkee ne jëli naa li nga wax moom liñ ñëw di laaj laajte ñoom luñ fere ba pare loolu lañ ñëw di leen laaj luñ fere ba pare waaw loolu lañ fere loolu lañ ñu laaj loolu nag loo daf ko daaxa ñun nag loolu lañ daaxa loolu lañ daaxoon jël njëlbeen ba loolu la ñëwaat nag isiwaat bi ñëwee ñu am na yu si wàññi ak yooyu noonu hmm. man nag bi ñëwatee xam nga man soo hmm. ñëwee gis xam nga moom gis nga national assembly bi ni mel fi ma dee toog hmm. am na benn lifin bu nekk suma kanam liñ fa binda mooy Banjul North waaw loolu lim firi mooy ah bindul bi fa doy ah bi nuñ fa suma tuur sax dañ ne ba Banjul ñoo ñoo tax na kii pour mu pour mu taxawal askan wi tal du taxawaay suma taxawaay foofu noonu du pour Banjul North rek ne pour askan wi la waaye nag loi bi mooy ne foog moom fu ñu jëlee ah wax nii Mm-hmm. ah mm-hmm. man décision bu mu la jël foofu noonu mooy ne li ma ngi la isil section um, section one one two one hundred and twelve mooy ne conscience ak national interest moo war a dictate mm-hmm. ñun suñ suñ suñ parti président indi assemblée su wax di wàllu foofu noonu la nag so man dama xamul lu tax ngeen wax ne te day moom assemblée bi ah soo bàyyi ma Ousmane si la li tax ma daaxa ko mooy ah li tax ma taxaw naa sax wax ma ne du maa wax ma ne bugg ma woon a wax si waxtaan bi sax bugg ma si woon wax ndaxte lii jaarul yoon waaye naa si wax ndaxte li ma gis li moo demee nii man li tax ma daaxal mbir yi mooy daaxuma ko because affaire yi parti laa xool is not partisan man daaxuma ko because dafa lu mu amel Adama Barrow président Adama Barrow dama am lu mu amel ministre am bi is not personal hmm? man nekkul ne dama nekkoon Adama Barrow bi moo ne ma ñëw ñëw wécceeku am def difin ama jëlaat beneen difin man dama consistent li ma taxaw su ma taxawaay démb mooy su ma taxawaay tey hmm. su ma way démb mooy su ma way tey mooy ni lii jaarul yoon jaarul yoon du ko entertain du ma si du ma ko discours sax waaw waaw honorable honorable lu gaay honorable lu gaay indi this time around from man li ma gis 252 million 551 thousand 878 point 76 loolu ci liñ jot a xam ne naweek lañ doon fay loolu ngir ah, nguur gi ñoo garanti woon nawek pour nawek jëloon ah, bor ah, gannaaw bi nga xamee ne nawek fayuñ loolu am ñu topp nguur gi pour ñu fay loolu ne xaalis boobu pour ñooñu lañ ko war a fay loolu bokk na ci luñ waaw Pape Ousmane xam nga mbir yi xam nga yooyu yaa nga foofa noonu ñun nawet dañu dee ñëw dañu usul al fini pour ñu pour wax bail out nawet mhm. saa su ne dañoo ñëw ah. ñu sax di fekk une fois njël bi nga xam ne sax moom lañ nangu too mhm. pour at mii ñu dugg si nii mhm. am na loo xam ne ñu ne pour pour dimbale nawet la pour pour ay bori nawet yu bag nawet jëloon ñu génne ko moom laa wax ne man mbir yi dafa taxu man pour man lii du bor lii bor bu ñu. man pour man waaw man pour man li ma wax mooy suma conscience. ah suma conscience ak mhm. li ma fi ne mooy national interest. Mhm. suma ko fa moo tax man bugguma bokk si process bi si di ko légitimiser. Mhm. lii daal mooy suma position man Ousmane Sylla. ah waaw soo bu man Ousmane Sylla maa jël suma décision. waaw loolu tax man bokkuma si. waa kuy wax nag ne man dama dama abstain abstainuma. wax loolu noonu waxu am. waaw waay waay dama participer indi process dama bëgg mu leer. waaw hmm, man man kenn ma put pression dama bëgg a mais wax man kenn put pression. Hmm. section one one two mooy wax ne man. kenn waruma wax pressurize man suma conscience ak national interest moom mooy dicté man suma participation indi assemblée so loolu laa bëgg mu leer na am kenn ku am nga laajoon nga waaw waaye ñàkk a hmm? boobu laa laa laaj honorable ñàkk a parce que waaw mooy watewuloo ne d'accord naa si wala d'accorduma ah non nga yow yow da nga interview yow affaire yi sax a ñàkk a boobu am su benn problème man askanuma bu ñu ma légitimiser di process bu ko affaire yi waruñoo ñëw di ñu laaj loo xam ne luñ fere la. ok soo bi nga ñëw dafa isi hmm. sos dafa dafa suspicious. Hmm. soo suñ ñëwaatee ak luñ mën a ñëw ñëw rek man ma fil ne suspicious soo dafa and it's not it's not it's not constitutional man boobu sama position moo tax bokkuma bokkuma soo loolu noonu laa ko jëlee daal. ok loolu la yow ak kan yéen a yéen a watewut yow ak kan ak kan a non non waxuma non non waxuma xawma kenn ku watewut ba ah, man du ma wax waxi jàmbur non non dama bëgg rek yéen yéen a fa fooy gis nga ñu fa nekk man Ousmane Sylla participé tuma si process bi bi wax naa loolu noonu because bugguma koo légitimer waaye abstenuma participé tuma sama position nag mooy mhm. supportuma loolu noonu supportuma man supportuma mhm. supportuma loolu noonu ko loolu li ma woon dikona fooguloo ne sa vote bi dafa count dafa am solo bu baax ndax mënoon ngaa vote non waaye bu ma bëgg dugal si loolu li ma wax mooy man bu ma jox na reti na reti si keneen man li ma wax mooy

su mbiri jafee dafa ñu ñëw su la day yomb am ñuy ñëw bu nga yombal mbiri nga def effort def yëpp ñu pour que brush aside ñëw ici because ñoom you are not playing their game waxtaan nga you are not doing what they want so ñu bëgg a laa lifin waaye maa laa xam ne man kenn du ma mun a simia ah. boobu dama bëgg a mu leer tey dama dama maa ngi jël question bi man am not arrogant man nit ku am uh, am humble am humility that's my characteristic moo tax dama ko dee bañ du ma dee bëgg sax ñu ma dee distribuer di ma jox acolytes yooyu honorable yooyu noonu yooyu ay doon bugguma ko man nit ñi am man nit ñi honorable waaye nag dafa am léegi-léegi yu dee xew yoo xam ne nit ñi dama bëgg a tey man dama dama dama dama jël beneen posto ah posto bi mooy man du ma toog ba kenn di ma wax ne ma lii mooy intérêt ci Gambia def ko su ma ko xamul rek man dama bàyyi maa ngi wax loolu maa fi def bés bi su mu amee maa ngi nekk di first MP ever in the history of Gambia ku resign because dama feel Gambian si xaw ma lan seen interest ma dem def lu xam ne honorable am na last week wax nga loolu yaa ngi koo bamtuwaat waaye su la fa nit ñi tegee nit ñi toogaat ñëw ne la ok lii lañ bugga yoo ngeen ne you are not gonna heed to that yéen itam wax ne lan la nit ñi bëgg lan la nit ñi bëgg. non dama la déedéet waxuma ne. moom laa waaw moom laa waaw moom laa ma ne. su la nit ñi teg la doo toog ba nit ñi teg la pression. ngeen doo toog ba nit ñi teg la pression. non kenn ma waaw lu ma xam su ma defee loolu am dama fenn nit ñi soo demee ma liggéey. par exemple wax ne moom lañ approuve ci bill bi am ne 150 million bi. loolu pour ñu fay GGC la ngir government seen wàlla bi nga xam ne moom lañ waroon a teg ci engrais bi nga xam ne moom la ñoo jaay am béykat yi nga xam ne ñu ngi war a jëndee saako mbéy mi saako engrais bi su doon jar junne dalasi ñu jaayee leen ko juróom-ñaar téeméeri dalasi ne 150 million bi pour take care of la so that GGC mun a dem fay banque bi nga xam ne ñoo leen joxoon xaalis pour déwén ñu mun a am engrais si liñ ñu ko nettali la baykat yi balaa ngaa fere balaa ngaa fere da nga war a ñëw laajte balaa ngaa fere waaw loolu dëgg la fere ba pare nag ah lan nga ma ñëw di ma laajte kon jërëjëf kon jërëjëf honorable apprécié waaw ma tey nag a a a ma leen a rek mooy ñun wi xaafa waaw man du ma ko daw interview nag waaye la ma soxla ñëw leen maa wax waaye nag dama bëgg a léegi-léegi muy dee clé xam nga dafa am ñoo xam ne dañ koy ñëw xam nga ah, li ñoo liggéey man bañu ma kenn ku ma scrutinise gis nga suñu bañu ma kenn because ku mi lay wax ne mooy ku bokk bopp bukki xaj boobu la woon maa ñëw bokk si nag yi politique liggéeyal nit ñi mm-hmm. am na ñoo xam ne li maa def neexut leen mm-hmm. dañ maa dañoo fépp pour gis naka lañ maa paquet mm-hmm. loolu mun naa nekk am na xam ne ñoo xam ne soo loolu noonu foog nga pare si loolu noonu boobu mu wax tóorale naa ko ndax réew li fi ni ma waaye nag ba ma foog ma leeral li ma bëgg a leeral man abstenuma waaw man abstenuma ba ko participer ma si process bi mhm. ok su ma tax waxi démba mooy su ma waxi tey mooy ne mhm. process bi dafa unconstitutional ba pare saafut intérêt si Gambien si suma conseil famille ma support ko duma ko support mhm. supportuma ko loolu mooy loolu la jërëjëf honorable waaw jërëjëf Ousmane thank you very much waaw ah, mooy Ousmane Silla um, National Assembly member for Banjul North ah, dégg ngeen li mu wax mu ne moom kat abstenut process bi la supportut ah, mooy ne nguur gi constitution bi li mu wax mooy ne xaalis bi ñoo laajte ci supplementary appropriation estimate bi dafa war a nekk loo xam ne fereeguñ ko dañ ko bugg a fere waaye nguur gi liñ indi pour laajte luñ fere be pare la te dinaa leen ko break downal comme niñ leen ko waxee rek last week xaalis bi nga xam ne moom la nguur gi laajte woon ëpp na lu dem si junne naka benn billion ak ñaar téeméer. benn billion ak ñaar témèr moy xaalis bi nga xamné mom la gaay yi doon laajte ah, ñom nguur gi loolu lañ doon am ci am am semaine bu passé ni ñu ne ministre bi wax ko né ko dellul be l'état be déwén nga dellu ci waat ak bill bi su ko défé ñu dor la am am jox bu boobu noonu ministre bi defut loolu nonu ñu tek ci ñaari fan mu dellu ci waat ñëw ne kat dafa bugga pour am am gaay taxawal loolu nonu loolu la ministre bi wax lan la indiwaat dafa wàññi yëfi tukki yiñ ci boole woon ak yeneen yu bari ñu ne duñ leen ko jox now 200 uh, am um, uh, from li ma gaay wax ne loolu lañ approve 252 million 551,878 thousand 878 dollars and 76 butut loolu lañ to be paid to Nawek because government was the guarantor of a loan years ago and they have defaulted and government stepped in to resolve because they are the guarantor xaalis boobu noonu nguur gi dañ garanti woon nawek pour nawek jël bor pour dépasser ko seen palaas bi defaraat seen taxawaay nawek amuñ xaalis bi parewuñ woon pour fay xaalis bi gannaaw nguur gi ñoo leen garanti woon ñi leen lebal xaalis bi nag ñëw pour toppa nguur gi pour nguur gi jox len xaliss bobu nono lolou moy ñaar témèr ak juroom fukki million ak ñaari am euh, juroomi témèr ak juroom euh, juroomi témèr ak euh, fukki ak juroomi million juroom ñetti témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñetti am dalasis ak juroom ñaar fukki butut ak juroom ben lolou moy xaliss bi nga xam ne lañ spend fele ci nawek number two 150 million dollars dañ ko spend to GTC as government portion of subsidized fertilizers last season. This allowed the farmers to buy at a bag of $700 instead of $1,000. This was owed to GGC and they need their money to repay their banks. GGC am ah, ñom ñi nga xamne ñoy topato toppatoo mbey mi ñom ño eh, la nguur gi daf leen warona jox 150 million muy téeméer ak juroom fukki million dalasi pour gaay jël ko dugal ko ci dépasse jëndal pharmacie muy béykat di engrais bo xamne mom la gaay di di ko ñom béykat yi bi nga xamé né am sako engrais mu ngi doon jar junne dalasi nguur gi dañ leen ci tegal ku ci nekk ñetti téeméeri dalasis mu waroon a nekk nag am pour gars yi jëndee ko 700 dollars instead of 1000 dollars muy subsidy loolu la leen nguur gi jox nguur gi nag xaalis boobu noonu muy am am am téeméer ak juróom fukki million nguur gi joxuñ ko GGC te sii dañ war a fay banque bi leen abaloon xaalis gars yi jënd engrais pour déwén gars yi mun a jënd engrais xaalis boobu bokk na si li nga xam ne moom la gars yi approuve ñetteel ba mooy 32 million 500 dollars mooy ñaar fanweeri million ak ñaar ak juróom uh, mi téeméeri million ak juróomi téeméeri junne fanweeri million ak ñaar ak juróomi téeméeri junne dollars to be paid to, uh, to be paid a salary and allowance for the ministry of Def to the ministry of defense reason being some reinstatements into the army were never budgeted for in 2018 and some had to be paid several years for wrongful dismissal soldaar yi nga xam ne wala ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci defense ministry bi soldaar yi nga xam ne Yaya Jammeh daf leen dàqoon te waruñ leen woon a dàqa nguur gi dañ delloo si waat ñooñu te fooguñ ko woon biñ leen delloosee si 2018 ñu ñëw bokkutoon si xaalis bi nga xam ne moom lañ bojetoon te luñ doon war a fay ministry of defense ñenn nañu si ñoom dañu am pour fay leen xaalis yi at yiñ toog yépp gannaaw niñ leen dàqee woon teguñ ko woon si yoon di was wrongfully doon dañ leen feyaat ku si toog ñetti at ñeenti at juróomi at ñu waral daan fay ñaari mi am am ñaari junne weer bu nekk kon dañoo seet ñaari at yooyu noonu ñu multiplier ko by ñaari million by ñaari junne ñu fay la xaalis boobu noonu kon lii mooy li nga xam ne 32 million dalasi bi si loolu lañ ko spend 32 million 500 dalasi si loolu lañ ko spend beneen bi 33 million 373 million and 55 butut muy fanweeri million ak ñetta ñeneen ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki euh, junne ak ñetta ak am bu butut xaalis boobu noonu ñu ngi ko fee ministry of interior ministry of interior mooy ñu amee biir réew mi ministre bi nga xam ne may faate ko doon jiite ci jamono jooju am ah, moom lañ jël ah, ci jamono ji nii ñu jox leen 33 millions muy fanweeri millions ak ñetta lan moo tax ñu jox leen ko di same thing with soldat yi yi nga xam ne Yahya jame daf leen daaxoon te niñ leen daaxee woon warutoon ñooñu lañ jël ñu jox leen am fay leen ba pare delloowaat leen seeni place jox leen ñaar ñetti at ñeneenti at juróomi at fukki at yiñ toog yëpp te liggéeyuñ ko ñu delloo leen pay googu yëpp loolu fanweeri million la ak lu tegal bi si mujjee mooy 83 million 89 million and 33 thousand 652 dalasis 89 million 33 thousand 652 bit butu 52 uh, dalasis mooy uh, juróom-ñett fukk ak juróom-ñeneenti million ak ak fanweer ak ñetti junne juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar loolu Ministry of Basic Education for being the increment of allowances of teachers that was not in 2018 budget réeréewu leen mbir ne taay yi yëpp teacher yi muy ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ci réew mi ñu ngi doon ñaaxtu ne seen fay gi baaxul ñenn ñi ñu ne dañ leen a jàngale loo di leen tic am yóbbu leen ci dex gi te duñ leen dee fay allowance provincial allowance ñenn ñi ñu ne dañoo ñëw ñu war a tic morning shift rek dem 8 o'clock ba 2 o'clock ñu ticloo leen ngoon gi tamit gaa yi dem 2 o'clock ba 7 o'clock si ngoon teachers yooyu noonu nga xam ne ñu ngi doon ñaaxtu ak ñi nga xam ne nguur gi dañ leen ameel 89000 890 million bi pour ñu fay ñu la ministry of basic ak secondary education ñoom lañ jox xaalis boobu pour yokkal salary teachers yooyu noonu kon leneen loo xam ne daf si bokkoon lii yëpp soo ko boolantee gannaa gaa yaa ngi doon laajte am am ñaata am 1 billion am 2 1.2 billion la gaa yi doon laajte daanaka gaa yaa ngi leen mujjee approval 557 million 458 585 am dalasis 76 butut muy juróomi téeméeri million juróom fukki million ak juróom ñaar ñeneenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñetti euh, junne euh, juróomi téeméer juróom ñetti fukk ak euh, juróomi dalasis ak juróom ñaar fukki butut ak juróom benn lii mooy xaalis boo xam ne moom lañ jox nguur gi gannaaw bi nga xamee ne ministre bi ñëwaat na dégg ngeen Ousmane Sylla li mu wax mu ne moom kat ah boppam laa waxal waaye soo gisee moom sànniwut process bi mooy ni nga xam ne moom lañ ko doxalee ndax xaalis bi du luñ yàkkamti te it luñ fere ba pare la balañ koo fere lañ waroon a ñëw laajte kon moom lañ dégg ne moom ma Halifa Sallah wote wuñ ci bés bi Euh, ci euh, projet ñi nga euh, ci wate wuñ pour kon la lu am solo la duñ def dara ñu continuer ak programme bi rek li li nga xew National Assembly bi Ñang mu ne government has really let us down all the promises they tell Gambian people have not been done so it's high time they step down and let a new government came into a clear, with a clear manifesto you uh, Yusuf Singate mu ne this man is um, upset. Uh, Mune Pao's great job, thank you very much. Modu Drame Mune, what is the use of Nawek then? Uh, Nawek waaw xaalis bi nga xam ne moom la gars yi jël um, ba tey jii dégg ngeen Ousmane si la wax ko ne ñu ngi jéem a suxali gars yi pour jàppale Nawek ne even budget bi sax am na xaalis boo xam ne dañ ko fa tegal waa Nawek pour jàppale leen ko um, kon. lii mooy loo xam ne xew na foofu ci National Assembly bi ñu bari si ñun ñu ngee wax uh, foog ne xaalis bi nguur a fere si ñaari xaalis bu gaay fere ba pare moom la ñoo jéem a laajte nii National Assembly members yi liñ def nii ah, li Ousmane si la wax foog naa ne am na solo amu dara lu ñoo daw bay fakastalu dara lu ñoo daw bay fakastalu amu fi because xaalis bii nii eh, luñ spend ba pare la fere nañ ko ba pare pour ñu war leen koo jox am gaay dinañ ko jox naweek ak mbéy béykat yeeg ñeneen ñi bala at bi di jeex beneen affaire la ndax déwén gaay dinañ ko doon a boole seen budget bi is a different story waaye lan la gaay di daw bay fakkastal li Ousmane la wax ne moom kat su sañoon pour ñu jël ko on a case by case nga xam ne kat suñ paree am ku si nekk ñu ñëw affaire yi nawet bi mu ñu ñëw gaay teg ko ñu téebul ko ñu gestu ko ñu laaj leen laajte yu bari kisi kisi ko ne leen ngeen ñaar téeméer ak juróom fukki million ak ñaar ngeen soxla 252 million dollars ngeen soxla pour nawet pour fay gaay yi euh, xaalis yi nga xam ne nguur gi daf ko garanti woon xaalis boobu fan la dugg ndax am na ku ma waxal démba mu ne ma moom mu ngi doon liggéey ci nguur gi lu yàgg mu ne ma nguur gi dañ dee mun a defar kayit mu ne ma Gambia government soo gisee ñuy am problème with IMF ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñooy lebale xaalis suñ la tegalee kayit when it comes to presentation is the best that they can back up waaye soo demee ba si biir gestu ko gestuwaat ko di nga gis ne liñ laa wax am na loo xam ne moom lañ see njublang am na loo xam ne moom lañ see njuuj njaaj kon loolu loo xam ne la dañ ko war a bàyyi xel ñaar téeméeri million ak juróom fukki million boobu tu nawek war nañ koo mën a gestu like Ousmane Sylla seet on a case by case basis ñu seet affaire yi nawek bi ba seet xaalis boobu ndax war nañ koo joxe ndax waruñ koo joxe interrogate gars yi laaj leen mbaj waaye ñëw rek dajale yëpp taxañ ko jox leen ñu 250 millions pour NAWEC jox leen ñu 150 millions pour GGC jox leen ñu 32 millions pour defense jox leen ñu 33 millions pour interior jox leen ñu 89 millions pour informi am pour pour ministre education loolu dafa tuur ndoxe war nañoo ñëw indi gaay case by case basis bu si nekk ñu teg ko ci National Assembly bi gaay gestu ko segga ko waxtaan si ba d'accord ndax war nañ koo joxe ndax waruñ koo joxe kon National Assembly members yi defoon ngeen seen liggéey nit ñi ñëw apprécier ko kañ leen gërëm leen si pression warut leen woon a tax doo coming from the government suñ indee lii in as much as is genuine luy jàppale béykat yi la waaye si la ni mu ko waxee there should be discipline there should be discipline turu yenn yi ñoo wax ne ay yeese góo la comme ñi Yaya Jammeh dismiss loolu du nguur nguuri Adama Barrow nañ leeral foofu noonu ne ñoom ñooy fay price bi they are the ones paying the price waaye nekkul ne ñoom seen nguur gi ñoo dàqoon soldat yooyu ñi Yaya Jammeh dàqoon la bi mu toogee ba tey police yi mu daaxoon bi mu toogee ba tey teachers yi ay salari ay at lañ leen ameel nekkut tey jii So this is some of this. Most of these are things that um, Adam Barrow inherited. So nekkut Mom, li fi nam am am um, um, uh, loo xam ne moom moo ko fa indi waaye su ñëwee di ko laajte ñu war koo itemize def ko mu professionnel loolu am solo la The National Assembly bi pour minister bi ñu ne ko demal nga ñëwaat déwén mu forcer. I see great sense in lu tax ñuy why were they pushing to bring this up before at mi why does it have to be passed balaa ñaari semaines yi di jeex rawatina léegi nga xam ne benn semaine a si des lan moo tax ñuy forcer lii why why were they forcing this what was so why did this have to happen ñu ngi jéem a jokku gaay nag pour laaj leen comme ni ma leen ko waxee access to information mooy di most difficult in Gambia ñu ngi jéem a jokku gaay ñoom Alaaji Mbow ak ñeneen ñi nga xam ne interview woon nañ leen ak ñeneen ñi nekk ci comité bi try nañ pour jéem leen a jokku some of them are not available but just like we keep telling them ñun war nañ leen a mun a laaj lu ñu leen bugg laaj suñ leen koolee des na si yéen ndax di ngeen tontu ndax du ngeen tontu di ngeen jël ndax du ngeen jël ndax some of them we tried and they are not available actually kon loolu lu am solo la pour ñu jéem koo xam uh, is very important pour ñu jéem a understand loolu noonu kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm leen santa yéen a ngee déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek the show is live képp ku ci nekk America 678 608 3322 678608332 मैले नम्बर डायल ठुसिनेको स्विडेन जेरो एट फाइभ फाइभ नाइन टू सिक्स सिक्स फाइभ वान जेरो एट फाइभ फाइभ नाइन टू सिक्स सिक्स फाइभ वान निनेका आङ्गलटेयर वान सिक्स वान एट वान एट सेभेन जेरो सेभेन सेभेन वान सिक्स वान एट वान एट सेभेन jeero seven seven ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax di leen gërëm leen santa dégg ngeen li nga xam ne moom la fi Ousmane Sylla wax comme niñ ko waxee leeral na ne pour muy leerkat ñoom nekkut ne moom sànniwut karta Euh, euh, moom process bi ni mu demee loolu la rafet lu wut loolu la taxawut pour bokk ci lépp loo xam ne dafa ronkat for di record moom du ko jàppale moom du si jàppa moom duñ ko ci gis pour mu taxaw he wants to be on record to Senecat moom waxoon na loolu moom ñaxtu woon na loolu moom jooytu woon na loolu moom wax na ne kat lii du loo xam ne dañ ko war a am def nekkul loo xam ne dañ ci war a daw bay fakkastalu kon National Assembly members kat keroog ci bés bi nga xamee ne rijegoon nañ ko ba askan wi rafetlu li gars yi defoon ba pare loolu mooy li nga xam ne gars yi am ñëwaat ne ñoom National Assembly members yi pour am génnee ko foofu noonu muy loo xam ne kat askan bi ñu ko doon jooytu ñu bari ñu ne shame on them ñu ngi wax ne waa dooy participer tuñ ci yëf yi ndax suñ participer tut loolu mun naa affect process bi and like dégg ngeen li nga xam ne moom la Ousmane Sy la tontu foofu noonu kon ñu ngi koy bëggee di ko gërëm bu baax a baax a baax ah, duñ def dara doon ñu jël am des break suñ dellu si waatee ñu waxtaan affaire yi lawyer Ousmane Dabo ak am president. bala maa dee ñu naan dëkk bi du dem balaa maa dee ñu naan dëkk bi du dem way naka la mooy demee fekk elente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wan na sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog fu dem lu tax Gambia du dem ñu ne sista Iva Sarr ñu eh, dem Pa Ousmane Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia talent Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Iva oh 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem ñu dem ñu dem Luther Gambia do them show Every Sunday now on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Oh 6pm let empty, just in case you ain't know dem dem dem Team Sunday yes yes yes good morning good afternoon good evening fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalanu dellu si waat nañ nag ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy seetaan ci youtube bi ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a ah, gis nañ seen comment si gannaaw ma riit ko nii rek Alassane Kebe mu ne Seexu Sabali non non non non he is the most corrupt Gambian on earth um, <laughs> um, Buba S. Jallo only God knows who is the next president of the Gambia. Oh Allah, please help me, the people of the Gambia, wipe their tears. Uh, Mune, that is very wrong uh, to bring somebody live without um, notifying them. Uh, Buba Mune Amin. Uh, Top Gambia King Mune, hello bro, how are you doing? I'm here, I am grateful so much. Uh, good matter, Jay Mune, all these government are corrupt. The president and all all the staff. Omar Sar Mune, what I feel to understand is why Gambians are still sleeping. Buba S. Jalo it's very hard to govern a country. I am trying to govern my home, but yet still it's very hard because my children, my brother, my sister, and my wife are criticizing me. Uh, Omar, they are not sleeping. It's all because of trust, but they are still uh, uh, failing us. Ah, kon loolu mooy comments yi nga xam ne ñoo nañ foofu noonu ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax kon duñ def dara lu ñu continuer ak programme bi niñ leen ko waxee ci gannaaw ah, ne leen semaine yi passé wala almost 2018 bi mu commencé ba tey wecceeku wecceeku yu bari ñoo xew ci nguuri président Adama baro toog nañ ci diggante bi ñu gis mu def cabinet reshuffle génnee ñi nga xam ne ñoo mel ni am Fatoumata Tamba Dieng moom mi nga xam ne mooy woon vice président mu jël ko def fa lawyer Ousseynou Dabo jël am ki nga xam ne moo nekkoon finance muy Amadou Sané of UDP mu génnee ko def ko trade jël ko replace ko ak Mamboure Ndiaye mu jël foreign affairs fi lawyer Dabo nekkoon def Kiri Tangara, mu jël draman def ko youth and sports Genefa fa Henry Gomez wecci kabinetam ñu bari New si ñu analyse yefi and a lot so ne lim jël lawyer Dabo, def ko vice President. ñu bari ñu ngi doon jubuleet ci ñi nga xam ne ñoo jàppale Lawyer Darboe ñooy faral UDP ñenn ñi ne président Barrow daf ko icca xëcca si ronam pour tenk ko ndax su nekkee vice président tukki yu bari yi moo def ak liggéey yu bari yi moo def du ko mën a defaat dafay nekk ci ronam Lumbu guta def wala lum munta def mu push ko ko mom mu def ko mané ñi ñu né amna ñi ñu né amut ñu continuer nak bi baro Youth Movement formé ñu bari criticize ko wa UDP genn na si ñu bari si ñom nak criticize baro Youth Movement ne lu wara am la warta am ndax soxlañ benen youth movement soxlawuñ beneen youth movement président bu toog war na am foundation muy loo xam ne nag ñu bari ñu ngi koo laaj historically am na few things yu happen bi nga xamee ne akira team ñëw nañ foofu daaw ci time bi not time bi sax Aliadisia ñu ñuy wax Axiira tiim muy naar boobu defoon vidéo bi pour wax ne am euh, dafa am euh, blood bags mooy baag yi nga xam ne fa lañ dee def deret denc deret ci lopitaan bi ne amut foofu biñ génnee wax loolu dañ gis lawyer Ousseynou Dabo mit gaay tese ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu jox leen parole mu paase président Adama Barrow toog daxalu ne amut ñooñu li ñoo wax amun in fact ci gestu mu ne ci liñ jot a xam sax they are connected to politician ci réew mi dafa am politician ñoo xam ne ñooy def loolu pour saboter waxtaanee woon nañ loolu fii analyse ko ne leen ñan la gaay teseeloon ñoom axiira tiim seen ñëw Gambia de vice président bi lañ fa teseel muy lawyer Ousainou Darboe is he the one ki président Barrow di refaato or not was a different story bi teachers yi di strike fekk président Barrow ngi dem UN lawyer Darboe dafa declare dëkk bi ne dañ am uh, uh, um, uh, food insecurity dañ we are about to be hit by food insecurity president Baro, Joge UN ñëw daxalulu ne amut Gambia amun food insecurity this is us analyzing you've seen these videos we cannot pull all of them dina am yena videos yu ñu leen playal but we cannot pull all of them jamono jooju yeb suñ ko waxe ñu ne da ngeena wax amna ñuy ne i jawol le mu le kaw fo ñi leen bañ ñoy wax li li ngeen ene UDP ak li ngeen ene president baro du am baro baro UDP la ken munu ci anything ken munu ci dara Aki moko, moo jël ko muy sen baro nak comme nima ko waxé lawyer dabo over and over dégg nañ ko té audio bima leena playal ci di ngeen ko dégg dem na New York wax ko dem na am am am am am serel yon la won fogna bi gaay di def sen ECOWAS to bi pour gërëm ECOWAS country ci mu wax ko fofu nono on multiple occasions ne baro baro UDP la kiram UDP la fa la bem reference bi New York mu reference waa New York ne leen yéen ñëpp yéen a New York why? fan ngeen jógee Gambia ku si jógee kenya wala ben deka mu wax ay ay dëkk ci Gambia ne suñ seetee ba seetaat foofu mooy sa dëkk to ku nekk fi nga jógee mooy sa of course lu jay si jën am am am banta lu mu yàgga yàgga si du mu sa tax mu nekk jësit du nekk jësist kon président Barrow ak kii loolu dox na seen diggante leneen lu lawyer Darboe def lu président Barrow tegi. mooy teachers yi teachers for change bi demonstrate teachers for change bi demonstrate as early as september bu passé nii end of august kon bi di demonstrate si biir sama holiday bi si biir sama bi lawyer Dabo gave them an ultimatum deadline the 28th of august ku ci delluwut ci sa classroom ndax october kon septembre la woon o october actually bi school ibbee ne dinañ ñàkk seen place dinañ recruit all teachers yi pour ñooñu ñëw jàngale lawyer Darboe dafa jox gaay ultimatum teachers for change ne suñ ñëwut jàngale si by the 28 of that month dina ñàkk seen liggéey ñu indi veteran teachers yi ñoo ñu ñëw di jàngale président baro ñëw teggi loolu oo teachers for change waxtaan ak ñoom dakar d'accord ak ñoom si ay sarra. imaginal yow nga tukki sa number two man vice President take action nga ñëw nga teggi action boobu lii yëpp dafa am lum firnde suñ ko waxee jamono jooju rek ñu ne ñu amut lawyer Darboe si boppam over and over has been heard being interviewed and he seet ne amut mu ne dara xewut seen diggante seen relationship tey la waalo gën a aay ñu ne amuñ problème ñoom ñaar ñu ne amuñ problème ñoom ñaar loolu la gaay wax they said they did not have a problem between the two of them président Barrow ak lawyer Darboe ñu ne amuñ problème naaw fan la baatin bi shifté ñu commencé di xam ñu ngee dégg yu bari ñetti weer yu passé ñeneenti weer yu passé président Barrow mu ngi doon consolider boppam dégg nañ audio bi ñu leen fi playal fi moo waxee di ñaax waa UDP pour ñu sànnil ko karta ne leen moom président moom moom UDP la am Bensouda am am am am am UDP la muy speaker bi Lawyer Darboe UDP la mu ne kon lan la gaay soxla lan la UDP namma su président bi nekkee UDP vice président nekk UDP speaker of the National Assembly Mariam Jack Denton nekk UDP kon lan la UDP namma moom président Barrow mu mobilise ne na ko gars yi taxawal pour moom mu nekk seen flag bi yara moom mu taxawal gars yi pour élection buy ñëw ne maynut ñu ko jokk maynut ñu jéem a xëccoo nguur gi ak moom ci PPP ci UD ci ci doy wala beneen parti waaye UDP kenn war a xëccoo ak moom nguur ñu dégg ko fi ne daf doon oo National Assembly members UDP di leen dikk ndàmpaay fukki junne dalasi ku nekk si ñoom ñu dégg ne dafa jëndal ciamaan yi yenn ciamaan yi ay moto bicycle ci dex gi Lawyer Darboe seen benn anniversaire bi gars yi doon def bu yàggoon ni muy Denton Bridge anniversaire bi mu wax ci foofu noonu ne ku leen a wax ne dañ leen a aye pour welo yi ngeen am welo yi leen a jox mi motocycle yi amin ne Lawyer Darboe moo leen tere bu leen ko jël daf leen a nax mu am yum junja foofu noonu ba tey ñu bari could not smell the rat or the coffee loolu yëpp lawyer Darboe doon junja loolu yëpp lawyer Darboe doon dunda ci yeneen xibaar yiñ jot ne Adama Barrow na ñu mel ni sukku singaate ak ñeneen pour ñu ñu dem wax ak lawyer Darboe ñaan ko pour mu bàyyi ko moom mu jiite pati bi lawyer Darboe ne with all due respect mu ne ñu ñu nañ ko abal këram waaye time and time again soo leen laajee ñu weddi ne dara xewut seen diggante soo leen laajee ñu ne la ñoom ñaar seen diggante ngir a tax tey la waalo gën a aay loolu la gaay doon wax ñoom ñaar fan la fi yëfi kaliskootee nag fi evidence bi ñëwee out outright ne am am am gaay yi ñu ngi am misunderstanding mooy ci bi ñu leen a playal nii gannaaw bi nga xamee ne ah, kii di lawyer Darboe Ah, taxaw na bi UDP defee seen congrès ba pare few days balaa loolu ah, gis nañ kii di am aji yam sekka ah, génn ci newspaper ci taskati xibaar yi ne UDP kat ñoom kii lañoo taxawal Lawyer Darboe la ñoo taxawal unanimously nit ñi ñoo ko bugga su ko Lawyer Darboe buggut sax nit ñi ñoo ko bugga kon ñu playal leen vidéo bi nii ngeen déglu ko ñu dellu si waat Eh, UDP UDP naafale kunun wanna ko demba kafa ko wanna ka kambe ko ye jiko men soto na patio to ci pati bi yaay tandile wona nen ko mbega mbega mbele ne ñi ko ñu nepp xam nañ lool on the 17th of October 17th of October 2016 2016 kabiye MOU safe bi ñu bindé MOU kafa ko be mo mo be loola di wane képp kuy taxaw i maari be boneela pati o tole dangaa jógee si sa pati mu ne biñ defaree MOU bi muy kayit gi nga xam ne moom la parti yi d'accord pour def coalition dañ wax ne képp kuñ sampa kuñ jiital danga ngaa génn si sa pati ah, pour fàttali leen the video is a courtesy of the Fatu Network. kabri coodoo futatantel ma bi affaire bi ñëwee ci ñoom na lii dañu na na flag bearer ñi suñu flag bearer

pour taxawal coalition bi pour dem jànkuwanteeg Yaya Jammeh taxawal réewi Gambia mu ne moo tax on the 5th of December weeri December bu mu amee juróomi fan ci 2016 moom bi mu génnee ci jéel bi. prison bi mu jógee prison naye ñooje mu gisee moom mu ko adama mu ne ko adama itala mu gambia la nabilaay musa mu ne ko yaay nabilaay musa gambia yaya jamme yaya jamme atala mu gambia la firawna ti moom mooy firawna ala ma ko firawna me yalon ko wona firawon ga ko bani israel ne moo tax moom ne Adama Barrow um, December 5 on the first si la Adama Barrow jël nguur gi si lañ ko woteel on the fifth si lañ bàyyi ñoom Lawyer Darboe mu ne biñ leen a bàyyi moom dafa ñëw ne Adama barone yow yaay yonent yàlla Moussa Yahya Jammeh mooy Firawna yow yaay yónnent yàlla Musa mi am am sawe Gambia Yaaya Jammeh mooy Firawuna te lu tax ma wax ko Firawuna dafa waxoon waa Israël ne waajubaat dog seen tànka yi seen naka ngeen a seen jigéen ñi leen dog seen doom yi leen rey mu ne daf leen ne dinaa leen rey yéen ñëpp comme matta adama baro ñëw daf ko ne yow yaay yonent yàlla Moussa yaaya jamme mooy Firawna ndax firawun dafa waxoon waa dëkkaam ne leen dinaa leen rey dinaa rey seen jigéen ñi dinaa rey seen xale yi Yahya Jammeh ne dinaa leen rey yéen comme ay màtta loolu la wax Gambien si kon Adama Barrow jokku ànd ak nit ñi nga xam ne ñoom la àndal pour sawe Gambia moo tax moom bi mu génnee mu ne ko yow yaay yónnent yàlla mu Gambia ma ma fankul tesu la tooñaale foo loolu dëgg la adum xane bii mu ne dëgg laa waxoon te loolu laa jàpp léegi moo mbiroo bondi ñoom ñoo génnee seeni bore ñoo génnee seeni ñoo boroo la taata ñoo boroo la dem sa jama jama waatoo waate yene saatee moo li mbiroo bondi kadaa ñoo borola daga bi bu ñu amee seeni mbo biroji ka mo disi wala kono den ko gene sikke ni sayta suñu ñibee ni ñoo ko adama baro i baro ye même fo dañu wax walam ko moy ni abe boda da be resign la de dina resign ban tanga la ñin na ne waato waati waat tous na la président

Euh, samalan lo luwo ko mo amu kuwane kudem beyji ni bata ni dara sama la boo demee bey ni sama ban ni sama banta bu naaj bi jeexee da ngay ñibbi sa kër woto kon UDP UDP Gambian ko dese ye ye la la na ila ta la baake Gambian yi wolu na le man dan wala emun ci loola inatna na député tan sama ning kili yaadi yalla tel nem

yen national assembly la loya Darboe di junje ni ñi nga xamne loya Adama baro daf len dik jox len fukki junne dalasi ku nekk weer bu nekk mu jox len ko ñooñu la mo waxal straight up ne nañ bay sen xel xamne sen ngor dafa am solo pour ñu sàmm ko kolare gannaaw lay féetoo sàmma leen gor, ngor lu ñu def len député moy pour ngeen topoto pour ngeen pour ngeen amin am tok fa pour réew mi. ko kon. ngambor kuonda memen to sinyala aleni asinyil la fanan ko ngena na tami alla ticket sendi ticket was a udp ticket udp ticket udp the ideas udp the ideas alati udp udp mem fo yiri bi lu mo ni wala mo lan yalla lolu mo tan ni ko yalla a ñu jël leen yalla kadi joti def leen député woto kon ado koku kala ci lem lu wala yudi bi na ko ñan na anda sata ado koku fala ci lem lu wala yudi bi na ko ñan na anda sata lu ado ci lanen ko nengen hamme ko hamme député lolu député ani mawamo ak isnin lon ka fo ko na ngeen xam ne waadle soto ni ñimban ko kam amoon na jamono boo xam juudi bi den juudi bi soto janto juudi bi musuna ben kasulo soto janto amuñu woon meyo juudi soto janto juudi bi amuñu woon ciaman woto kon nin ciaman me yanira ko chairman bu yaakaar. you can hold UDP to ransom. yow munu ngaa téye UDP ni mu ne fan ne itamit chairman yeeg meyo yek ñeneen ñi nga xam ne député yi nga xam ne turu UDP lañ taxaw ba pare di bokk ak baro wala di support baro ñooñu la moo waxal ni indirectly waxut seen tur junja doy na borom xel te bot enu doy xamna lu bop antan outright our party survive mu ne parti bi no dundo ñaar fukk ka tagga any single chairmanship of the area constitution amul benn place area and we can do away te mun nañoo def ni any chairman by Belgium who does anything contrary to the principles of UDP. man, you support President Barrow? lii la moo waxal outright wax ji mënuñ rafetal mënuñ defar mënuñ dëngal. all our elected members. suñu elected members yëpp. whether councillor. muy councillor. member of national assembly. national assembly member. 2001. 2001. to 2006. 2006. United Democratic Party did not have any city members of the, uh, the national assembly. UDP national assembly. 2011. 2011. to 2016. to 2016. United Democratic Party did not have any city member of national national assembly. It did not detract from another democratic party's power and force. The party fought on, party and fought on, and fought the dictator It was at the time, sorry, al-Hassad. Ku déggal Dabo li moo waxee rek nga xam ne kii mu ngi mer mer laa waxee li mënuñ koo defar te yéen a ngi jàkkaarloog moom yéen ñi ko seetaan yéen a ngi gis kanamam gi ni mu ko defee his body language his tone of voice and everything of course there is no doubt liñ wax rek ne ku yar sa mbur ku yar sa kuy balaa daan kenn daan la that is what is happening it's shocking it's surprising it's disappointing it's just a fact lii mënuñ ko nëbba ngeen xool looya daa ba ngeen xool comportement am ak body language am It was at a time when UDP did not have any single member in the National Assembly that we pushed on and make sure that the dictator packed up and went away. So nimma yamira il imudip tawdi, ka section of the constitution, la fali, wala to ni, you are deceiving yourself. ni wax gaay sector 92 of constitution bi député bi ñëwé tok dafa am lu constitution bi muy ne député boo xam ne yaa ngi ah, sa parti ne la su la dàqee dangaa ñàkk sa toogu bi te yaay jame daf daan jëfandikoo loolu lu bari di dàqa ñu bari si jamono ji mu fa nekkee am lawyer Darboe am député yi bi ñu ñëwee ñoom dañ génnee loolu député yu ees yi dañ génnee loolu foofu léegi UDP suñ dàqoon seen benn député wala NRP wala doy taxut député bi ñàkk toogoom ñi la teg foofu rek muy ñi la woteel rek ñoo la mun a génnee si toogu bi loolu la moo wax ni ne député bi ku si toog foog ne so am am am am am am uh, da ngeen sign bill bobu nonu lolu mo len nekk di ar yena ngeen nax sen bopa lolu la wax député yi. képp ku fi def lu outé ak li parti bi taxaw du tax a parti bi ya ngeen nax sa to to to any any any councilor chairman mayor wala bopp. yolo mune mu ngey mu ngey tekku gaa ne len na ngeen xamne yu UDP dañ am ay sarta yu ñu tax a jóg yi ñoo tax a dox ku foog si yéen ne section muy loolu ñu wécc si constitution bi moo leen aar ñun am nañ droit am nañ ñuy sarta yoo xam ne mu lañ teg te duñ ci gestu duñ ci seet saala yaay ndeer pour génnee la am jël sa toogu bi si sa loxo su fekkee ne dañ fiil ne am li ngaa def àndut ak wala méngoo wut ak parti bi dañ laajte We are not going to be compromised by any member of National Assembly. benn National Assembly member benn député duñ la seetaan nga njattañu nga xooj ñu. on the ticket of the United Democratic Party. And if you feel that you can no longer mu ne na ko gaay may bugut kenn tàccul ko bugut kenn wax mu ne na ko gaay may looya mer na. alekatu alekatu ni Maria Mira ite united democratic party kota kootitanola kotenge imani sitanode adum niyanira kwela darajo wode gagnandi ila sira fanan sai lata ba say tandina ah! mune kusi yakar fogne yow sa daraja mola may li nga am joxel lengue yi delol sa site bi sa togu bi li nga gagné ñu dem ak yow election by election ñu won la yow yaay waxi mer ne mu ngi leen santal. Kafa ko mu ne. Kafa ko. wax ne. ñaar fukk ak ñaar. fɛn fɛn nama United Democratic Party mɔda mɛ jija. mun tɛ ye nka UDP. waron kana sɔn. kon bu nangu. léeg ay naxaate ay filindir ku moolu ay wayi naxaate waye mooli waye waye mool tiija loolu tax ñu ñu ñu yëgu laftanga moole ni lonko lu bëgg ñu xam mooy na ñu executive sotle saay am nañ executive bu bees ñu executive members ñoolu executive members yi anin na mool na bet bolon na chairman ol daal beeto taari ak chairman yi liggéey fu nekk walla mun ñaati jeeto ñoo ñooy suñu bot foofu walla mun tilooti jeeto ñooy weer bi foofu walla fana mun siwli jeeto walla mun nakkiilaati ñooy suñu tànkaak yonente bi foofu fen fe yaalon kaa fo ko lépp loo xam ne a mambo unate nde useen daaba bulu nin exécutif ataate moo moo kan UDP toolal saalo manke UDP a ah, dégg ngeen lim wax loolu leer na lépp lu jógee ci biti te jógee wut ci moom Ousainu Darboe ak ñi nga xam ne ñoom lañ fal ci seen parti bi es nga xam ne loolu jógewut UDP kon président Barrow fu mu taxaw léegi ne UDP la walla wax dara ne mu ngi wax ci turi UDP mu ne ay naxaate la lépp lu jógee jógewut si moom jógewut si exécutif bi mu ñëw si yéen la ngeen jógewut si UDP alsaanon ko la xam ne tella parti o bi kunu démb o UDP kankilin ka fanan mbi fana UDP kankilin e bete UDP ɓenno baat aɗo sinen fana te UDP ko wa UDP mais yaron ka ko mo UDP ti ko amna UDP la ko nana mu kadija ko ko dinya mu de wala nabu kafa ko ko ko mu sawa wala fadu ni nyaka tele nyaade UDP la ado lonne lolu ñom xamne ka UDP la ado ti lu dul ado UDP wala yo lonne yo ñu xamne ko ko ka son lolu demba na parti o ñin danta tamandi la ñaamen parti bi ni ko do do doxale ala na continuer ka a wañu dale ko nona wala parti wala na faati lolu moy ngariñi la na faati moy ngariñi gambe ka ko UDP mbota bu mel ni eh ko UDP reuy comme UDP ñoo ñoo la jël lolu fokk ma fata fokk halati wuté wo fanante la jël lolu bari way mi fata bu halati wute faya fokko bamuta abe problème na ta patio ko no kata wa manka mirali fatoti kon ute bi wa manka mirali wa manka mirali la fatoti lolu du ute wa is a deliberated attempt a calculated attempt to see to sow the seeds of discord between the parties which will not be accepted in any way te UDP UDP recognizes only ah lu mu xamee mooy. lu mu xamee dégg ngeen dugg na ci loolu président Barrow youth movement dinañ ci ñëw dégg nga mu ne UDP xàmmeewut ràññeewut benn mbootaayi ndaw muy youth wing UDP xàmmeewut ràññeewut benn mbootaayi ndaw lu apart from youth in Boba. UDP does not recognize any other youth. UDP dégg ngeen gars yi ni ñoo tàccoo UDP xàmmewul benn mbootaayi in dauludut youth wingi UDP bi of course euh, dégg ngeen am na yenn message yoo xam ne ndax looy daa boo ne media bi ñu ngi teew fii xam dinañ binda dafa bëgg a ñu quote ko directly on some of the things that he is saying moo tax mu wax ko ci angale yenn yi moo wax ngeen bàyyi ko xel si angale la koo wax su buggee jàllalee na message yi any other any other youth wing or any other youth movement pretending to be pretending to be UDP. All the real UDPs. Original UDP. All the real UDPs are ah, in UDP. real UDP ana also labda kakuma kile fanal faye alila moy kava ko UDP 2016 wanana masoto ko UDP 2016 amut UDP 1996 UDP 1996 wada man soto kon yene deg li nga xamne uh, uh, loolu la lawyer Dabo wax mu ne UDP 2016 UDP 1996 there is nothing like UDP 2016 kon lii dafa nekk loo xam ne ah, dégg li nga xam ne moom la lawyer Darboe wax ah, ci jamono ji ci affaire yi UDP yéen a ko déggandoor ah, li nga xam ne moom la wax ci jamono ji it's important pour ñu bàyyi xel gannaaw bi nga xamee ne wax na li jaaxal na ñu bari ñuy laajte ne lan moo xew ci diggante lawyer Darboe ak Adama Barrow baro Youth Movement lañoo wax bi mu waxee lii nag jaaxal nañu bari fekk Adama nekkul ci réew mi bi mu dellusee laaj nañ ko about this lan la lawyer wax ñu playal ko ngeen déglu tamit wax ci congress bi. that nobody in this country in his right mind will dispute that President Adama Barrow is the president of this country. Nobody in his right mind. And nobody in his right mind will also dispute the fact that Hussein Dabo is the leader of the United Democratic Party. This situation. This situation has not changed. In my own case, it can change on plane, on hackathon. In my own case, it can change on Sunday by the election of another person as Secretary General and leader of the United Democratic Party. But, but, that of President Adam Barrow can only change when there's an election in this country. So, I made that clear. ko momo yang kanga kabo ko e hakalo ye fato fa e hakalo e sondo mama nyami ite ni soso la ko president adama baro le ni bakala president ni me tete yo soso do ko de dama di man e hakalo nyami kala ba ni me kane soso ro ke ni na ko Ousseynou Daabolam kon dégg ngeen wax ji leeralaat na ko foofu yi tamit mu ne kenn warta weddi ne président Adama Barrow mooy président yi réew mi waaye tamit kenn warta weddi ne moom Lawyer daabo mooy njiiti UDP kenn warta weddi ne Adama Barrow mooy président yi Gambia waaye kenn warta weddi ne moom Lawyer Darboe mooy njiiti UDP kon ñu ne ndax gars am nañ problème wala amuñ problème baro bi tukkee dem Egypte ba ñëw ci airport bi ñu laaj ko ndax moom ak Lawyer Darboe dañ am problème ñu déglu. Your Excellency, coming back home, what can you tell us about your relationship with your vice president? There has been speculation from the Africa public TV. it's not smooth. Can you please clarify? The relationship is very, very normal. I think the question is about politics. Uh, as far as I'm concerned, I'm an independent candidate. I didn't belong to any <laughs> party, so I am not coming about party politics. kon dégg ngeen li Lawyer Darboe wax. mu ne it is UDP la Lawyer Darboe jóge la Adama Barrow jóge te am na yaakaar ne su jeexalee UDP laa dellu Barrow dégg ngeen lim wax mu ne man correction bi li ngeen a laajte affaire yi politique la lan mooy sa digganteeg Lawyer Darboe naka la mel mu ne mu ngi ratax dara xewut suñ diggante affaire yi politique la ngeen maa laaj. The most important thing is I am elected. work for the Gambian people. Mune independent to develop candidate. this country, to move this country forward. That's why today, I my focus is to go to Basi and launch the roads and bridges in Basi. On the 21st, I will open the bridge in Farafeni, and we are also working on launching Banjul. I think these are main Also buying grounds. These are the things that I'm, I'm employed for. That's what I'm doing as of now. I think that's the most important thing. But the most important thing is we have to be united. We have to be together. Muna nañ leen man yofi politique ngeen ma laaj politique taxut ma jog motax tay ma ngey dem base pour dem def lima fa lonch motax ma jog pour def development plan ci nga xamne mom takau. taxaw man independent la awma ma par parlo bokuma ci ben parti mané kan la président Adama baro di nax ñaari weer ci gannaaw la fi wax ne mom UDP la Mariam Jack Dentin UDP la Lawyer Dabo, UDP la tey mu ne independent candidate if you are together is bigger than anybody else I ngeen li wax ne Gambia is bigger than anybody else ah, ñu dégg ko gannaaw bi nga xamee ne ah, dem na fële tamit am ci ah, naka lañ ko ooyee base ñu déglu li wax foofu tamit ñu déglu ko. development. Ibe Jande. Begaay. mbee kontoon gannaaw bi nga xamee ne Lawyer Darboe wax na loolu li muy wax baro dafa am pour génn leeral demut ci media bi boot ci jotaay yim am jot na faa wax mu ne Barrow Youth Movement for National Development ñu ngi fi video si of ay Africa TV ye doku baale ke ñimmitino la kuwoto liggéey bu rafet la gaay def pour meeting bi taxaw pour ñimmitino yi pour meeting bi am na ministre yela kuwo fo janne o wi ministre o haali ɗo geɗe haalaji mo kafo kafolo miyalon ko ye ñoo kafu o ko kafu bo ɓe dondodiri inaɗo ne ay ndaw yu bokkalen ñoo ne moom lañ jàppa def ko papa président baro si luñ fàttale ko baro youth movement biñ ko taxawalee ees fo the record génne ngeen press release ne yow bokkuloo si amuloo dara looy def ak ñoom président baro min fattata ko lafta bankole dow kuula nde lafta bankole dow kuula mu ne ay ndaw yu boole seen bopp pare ne dañ ñëw pour liggéey liggéey réew mi te moom it réew mi la bugg a liggéey woto naatanga dindigol soto mi alon koye karanta so tawi mi heɓi sukaaɓe jangooɓe ande hammo soto keɓi hamme ande parata pour gambia ta ñaato kiɗi wondema ɓe jahna ɓantara leydi ndi ha yeeso gamiran ni wol naata kafutanma pour nga banko dow ku ɓe ngari kam tawɗe ɓe mbi ɓe tawti kam wondema ne golla leydi ñanta ku woku kala je ñanta kala je le pour woku mu ne su amee ay ndaw yu boole seen boppa ñëw ne dañ bëgg a liggéey réew mi pour jàppale ko moom lépp mun a def dina ko def pour jàppale leen foti wadde ko tombi foti wadde o woto président baro youth national development mu ne président baro youth for national development a salon ko mba contente ngal la kolto ngeen xam ne bég nañ ci seen affaire andu te dinañ leen ci jàppale ko wayri almantra kuuke kan kuume an defu leen dara loo xam ne dafa tegg dëppoog loi dafa àndut ak loi a ngi defar ay bohool albe gaadinoo dara kam yéen a ngi defar ay gaadin alka public a ñoo tuura machine a ngi buy wal wal dugub kon liggéey nguur gi ngeen ñëw pour jekkali képp koo xam ne ite ko ka wala criticize dégg ngeen mu ne képp koo xam ne yow danga nga jóg pour ŋàññi loolu ndaw yi jóg ne dañ ñëw pour liggéeyal réew mi pour jàppale ma man ci liggéeyal réew mi képp ku jóg ne ñoom ngay ŋàñña koto ite agenda doole soto ande ko agenda hoore ma keɓanda mu ne kon da am beneen agenda ndaw yi ku fi jóg ne da nga ñëw pour am am am am euh, euh, euh, yàqa loolu yow da nga am beneen agenda dégg ngeen Lawyer Darboe li wax fii ci Barrow Youth Movement ñu dégluwaat ko. we will not accept it in any way. mbootaay UDP. abe UDP. rëy UDP. si wuute. faya fo ko. ba mu to see to sow the seeds of discord between the parties. we will not accept it in any way. te loolu du ko accepté. UDP. UDP recognizes only. ah lu mu xamee mooy. lu mu xamee mooy. United Democratic Party youth bi. youth bi United Democratic youth bi. apart from youth bi booba. UDP does not recognize any other youth. mu ne UDP xàmmeewut ràññeewut beneen um, uh, uh, youth wing lu dul United Democratic Party youth wing bi loolu rek lañ fa recognize muy ñoom lañ ràññee. baro ñëw ne képp ku jog taxaw ne da nga ngagne youth wing boobu noonu koto ite agenda la soto kon yow da nga am benen agenda agenda do la soto war agenda goɗɗo gonduɗa gambia jang o wi kafuuji goni e nder leydi gambiya kafool seeɗa janne de da ɓe wi e nder leydi gambia de sarde wo sarde yaaje kafoo kon dégg ngeen ko président baro movement am bi muy am euh, baro youth movement la tal loya dabo udp la tal ñoom ñaar ñu ngi dem bàkkanfoot and dégg ngeen ñaari videos yi ma leen playal bu si nekka yéen a ngi koo gis Lawyer Darboe li mu wax ne UDP recognize wut xàmmeewut benn youth wing benn mbootaay lu dut am am am am am UDP youth wing président baro ne moom képp ku jóg pour criticize youth wing am bi kon yow da nga am leneen loo tax parti o oh, parti même bi jang ka foo baal mu ne parti bu nekk ci réew mi am si wo si bi jang ka foo baal bari ñing ka fo be be gambia o wi di ka fuli fo ke di ke jama gambia do baru ka fu kili ka wala to fo mo ne parti yepp ngi am am am mbootaay ya nañ jari parti bi ya nañ jari dari botay bi loolu president baro do woni president baro youth for national mu ne president baro youth for national development ñoom rek lañu ñoo yàq affaire mu ne ngeen xam beddoo ko men na yéen a ngi def liggéey boo xam ne silandi la de oh, ragaloo ngeen ay nit bare ngaalaale doo ko men dati xam naa ne liggéey bi ngeen commencé solo du laaloom ñeenti commencement bi la rek waari maa ko laal sotole am ngeen ay dimbalekat ñu sànni kilon ko noonu benn at bi e lafta projet keme ngeen def par du mu téeméeri projet tan loolu téeméer ak juróom fukki projet Gambia la Gambia saate wo saate dëkk bu nekk président Barrow Youth National di bari yaa loon ni jee mu ne ngeen taxawal président Barrow Youth Movement so kon léegi ñun fan lañ jublu Lawyer Darboe mu ne ñoom recognize suñ xàmmee wuñ benn mbootaay yi ndaw lu dul UDP uh, uh, Youth Wing bi Barrow ñëw nañu dëkk bu nekk ci réew mi bugg na mu ngi leen a jox ndigal bugg na pour ñu sampa président Barrow Youth Movement foofu noonu this is very um interesting di leen fàttali yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan ne yéen a Gambia dem show jógee fii Gambian Talents TV Pa Usman Diouf nekkal microphone be. niñ koy defee sa su nek rek kon yena a ga wax ji li nga xam mom la président baro wax di show is live 6786083322 6786083322 amu dara lo xam dañ ko fi togga Amu dara lo xam dañ ko fi create dañ leen wan évidence bi ngeen gisal seen bopal li lawyer bo wax ngeen déggal liko baro tontu kon ñun fan lañ jëm if this is where we are what is the fate of the country he is the vice president gis ngeen ko ci airport bi bi mo wax mu fa taxaw bi baro di wax ne mom independent candidate la baro mi lawyer bo wax two days before ci sen congress bi congress UDP bi lawyer bo wax ne baro baro UDP la fa la joge moy president rew mi why there is no doubt ne mom president, mom vice president bi lawyer bo mom moy njiti UDP dégg ngeen koy tamit fi ñu taxaw noonu base mu fa bi moo wax Lawyer Darboe ngi toog bi moo wax foofu noonu outright animosity few days balaa élection bi seen élection bi seen seen congrès bi génnee nañ am euh, resignation letter président Barrow bi mu senoon resignation letter am bi moo resign from the UDP ne moom bokkatut am am am UDP léegi mu ngi jéngu pour ñëw taxaw nekk euh, si coalition bi gis ngeen ñu génnee euh, euh, loolu noonu kon lii dafa nekk loo xam ne du yëfi caaxaan ñuy ñaan am askan wi pour ñu understand loolu ñu xàmmee ràññee ak lum bon bon ak lum ñaaw ñaaw réewi Gambia moo ëppa ñëpp réewi Gambia moo gën a important ñëpp lum bon bon lum ñaaw-ñaaw réewi Gambia lañ wara gis dégg nañ baro mom ci bopam mu wax ko ne réewi Gambia mo wara ñor ñëpp dégg ngeen mu wax ko mom baro ne réewi Gambia mo wara ñor we should put Gambia first instead of putting party first instead of putting institutions first ku nekk si ñun da nga war gis ca boppa si Gambia It's sad and it's unfortunate that this is what we are faced with today. The two people who are at the realm of the government, at the head of the government, ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ñoom ñaar ñuy xëccoo wax di sànni wante kàddu ndax Dabo wax na ba pare te mentionul baro, wala baro Youth Movement ci bi muy wax yëfi xaalis bi ñu jox député yi ak bi muy tekku député yi ak bi muy wax ak fa président baro. Tudut xaalis bi mu joxe lim junja di nga xam ne président Barrow laa wax boot en waaye xam na lu bopp antan the same thing Barrow bi moo wax daf ne ku fi toog di criticize Barrow youth movement daabo has not openly done so for the longest waaye UDP ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy toppa UDP ñoo doon def loolu waaye moom Darboe si boppam gisuñ fen fu mu génnee pour wax te lii kon ma read some of your comments su ko defé ñu continuer programme bi rek yéen a ngi déglu lu tax Gambia du dem so joggé fi ci Gambian TV Pa Ousman Joof nekkal len ci gannaaw microphone bi di len ñaax pour ngeen jappalé institution bi yeen ñi sétane ci Facebook bi next to sen comment session bi di ngeen gis fofu nonu e link bo xamné am su ngeen ko cliquer dina len yobutu to a secure site is called am ah, di ngeen gis green circle bo xamné am ah, mu ngi am a love sign ci biram su ngeen cliquer on that link dina leen yóbbu of course foo xam ne di ngeen ñu mun a am donate am five dollars every month gis ngeen ñu call si la si gannaaw xaalis lañ use noonu pour call ko ak li call bi gàtta gàtta noonu spend nañ fa twenty dollars pour jënd card boobu noonu am the same thing ak ñi nga xam ne am ñu ngi leen a jokku programme si leen indil Gambie comme ni ma ko waxee xale yi dañ am pour fay pass def lu nekk pour dem. koval leen ah, media council launching bi nga xam ne mu ngi doon xew foofu ca Jembe hotel tey even though seen day off la kon pour jàppale xale yooyu pour fay transportation pour jënda internet pour jënda jumtuwaay yi ñu soxla ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu we are putting 45 young people to work in the Gambia and it's important that ngeen jàppale ñu the importance between the difference between public um, um, um, participant ak member in public broadcasting is participation and active participation ñu ngi ngeen jàppale ñu ku si munta donate online tamit am turu link bi ma defeen ñu ngi seen beneen link foofu noonu ngeen gis ko PayPal link bi su ngeen cliquer on it rek di ngeen ñu mun a jàppale incha allah ah, loolu dina ñu neex dina am solo bu baax a baax a kon ñu ngi leen a jaax ñaax pour ngeen allah loolu dina am solo ah, su loolu weesoo yéen ñi yónnee seen alawaan si Gambia mun ngeen ñoo yónneel tuuti ci Gambia foofu noonu su ngeen a yónnee seen alawaan si seen mbokk yi incha allah dinañ si jot kon ñu ngi leen ay bu baax a baax ñu dellu si waat rek sadi xulaay ñang mu all this back and forth um, mu all this back and forth Um, will not work. We have to take this risk and scrap all this government and all this 53 years system and rebuild the constitution and re-educate our people so our future generation will have a good future too. Much of noise Gambia need um, a rebirth, not vultures to hijack our nation. Enough is enough. Um, it's sad and unfortunate. ne am ñu jiite nguur gi ñoo ñu ko wane outright they should be busy working loolu moo tax mi teg fa bi national assembly bi lopitaan yi schools yi jàngu yi last week rek la Sekubaa Jaaju mi nga xam ne UDP la nekk si boppam am manko interview mu ngi publish yenn nataal yoo xam ne xale yaa ngi toog di jànga président Baronak nag liñ gis right now am mooy loolu Harriet Joyner mu ne well why did they come after they spend the money the money to ask ah, Fatou Ndaw mu ne I see Christians in sport of midway through um, Christians in sport of midway through I'm Sadi Hulaimune, Nawek, GUC, and so on. All the same thing, all wine in new bottle, Gambia. We have to take close eyes on these vultures. How can a civil servant build mansions within two years and still his salaries can't even buy them a uh, by too much corruption? Adam Akrokas Munepaos, they forced in the reduced bill because they lost um, face when it was initially presented they have to um, employ dirty tactics to save some faces, and this was um, unfortunately um, orchestrated by the speaker and some real unscrupulous nams. Um, uh, shameful Wow, mu guy, gars forcé yëf yi pour jàllale correct speaker bi Mariam Jack Denton mooy ki nga xam ne moo jàllale fii ah, moom moo ko forcé moom ak yenn National Assembly ma sadi xulaay mu how can you be representing your people in National Assembly and you base everything on the constitution and you cannot even articulate yourself properly. Uh, Barrow and government, you all were saying all our resources were misused by the previous government, but now you guys are shaking the country and the poor people are suffering. Uh, very disgusting. Mohammed Mendiga mu ne alaikum. I'm thanking you I'm thanking you Pa Osman, for the good job you are doing and for inviting Honorable the Gambia government and Barrow House to help people and the country because since they took over the country everybody is complaining may God help us things are getting worse by the day Pa Jatamune I just don't know what kind of um, message this is um, Sadiq Lai Mune Gambia before being arrogant was cool but now being cool is cool. I'm um, UDP, UDP, UDP rec. No one talking about problem Gambia is facing is so sad. When will uh, Gambia be out of this mess? Sirif Ibrahim Sankomune, all what he's saying is the truth. Oscar um, the Diamune Godfather is spoken. Uh, Jimmy Alex Colley, someone with the influence always. Um, uh, yonu Murit, so sad. So the people was putting their life on the line to make this change happen, and these two are fighting for power. Very interesting and a very good point. Ana ñi dee ana ñu bopa, seen bopp ana ñiñ rey ana ñiñ toroxal ana ñiñ tëj ana ñi ana ñi am sleepless nights everybody did that for what just to end up where we are to be fighting for power outright that's what it is outright. That is what it is. We will not try to be politically correct here. It's unfortunate, but we will not. Dégg ngeen li ñu APRC that's our analysis. And the same thing with UDP. Right now, with, between this Barrow and UDP thing, they are busy. In fact, suñ congress pare sah. it would have been important whether doy la whether UDP la whether PPP la whether NRP la ñoom ñëpp ku si nekk suñu defee seen congrès ba pare ñu taxaw wax askan bi réewi Gambia jërë ngeen jëf ci li ngeen ñu tànn teg ñu fii ñu exécutif dinañ soppi doxin lii moo ñu tax a jóg su ngeen ñu sànnilee karta dinañ leen defal ABCD su ngeen ñu sànnilee dinañ leen defal ABCD we didn't see that at the UDP wecc nañ seen constitution bi képp kuy liggéeyal government du lii defaraat seen taxawaay ci seen biir kër waaye did they talk to the Gambian people at any point generally it's all about UDP and how to consolidate the party which is fine but dina doon baax ngeen jàkkaarloog askan bi wax askan bi ne su ngeen ñu sànnilee karta nañ def nangam na xëccoo nguur gi lan moo ko fi jar there is no doubt UDP ñoo gën a sonna parti yëpp Gambia loolu ken mënut ko jël away from you guys there is no doubt that you suffered more than anyone else there is no doubt that Lawyer Dabo went through a lot and did a lot and sacrificed a lot suñ ko the Gambia's Mandela Nelson Mandela xëccoo wutoon nguur in fact dafa jox gaay ne leen jël leen daf leen jox ne leen jël So if you are called the Nelson Mandela of the Gambia, Honorable Dabo, consider ko. ci beginning bi wax naa leen ne OJ Jallow mu ne soxlu nguur gi ñoom nañ joxe lenge ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp thank you guys for ushering democracy mag ngeen seen liggéey rafet na teete leen xale yi empower leen young people bi but the infighting ak lifinante bii amul njëriñ honestly amul njëriñ amul njëriñ it's unfortunate ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu dina am solo Mamud Cissé mu ne where were you when Dabo put his life on the plate stop hypocrisy <laughs> you can continue to ask the where were you question we were all here ñëpp fii lañ nekk we witness it we see it and loolu moo tax ma wax ko léegi nii fii la ñëpp nekkoon te jamono jooju dafa passé for heaven's sake stop asking people the question just like we told President Barrow it's not gonna do any good Do wechi dara asking where were you it's not going to change anything right now we will continue to educate the people Kusi si xam luy soxlaam ku si xam asking the question is not going to change anything gambia has changed for good and gone are the days when people are intimidated when people will avoid saying their minds their opinions and what they think we will continue to hold government and all our leaders be it politicians be it religious leaders or whoever accountable of how they intend to run the country and the things that they do because they have a responsibility to rule the new continent the amudar said Babukar Bamune uh, Baro Baro versus Gambia. Uh, Mahmoud hypocrisy is in the blood of many people. UDP is here to stay. Um, Yoni Mururmune, where were Dabo when the victims were suffering? Uh, you get the Mahmoud Dabo himself is one of the victims. Don't fool yourself. Uh, Mohamed Sahomune, hey, Paul Maudo, the African is uh, full. Africa never go for always Africa, and it continues to food only 110 I think I need to unite to fight for. Gabriel Keta mune hypocrisy is in the blood of many. Muhammad Sahumune, all African group leaders is gone now, I think, on the half uh, wall life. But Lados, nobody come down. I will lead us. Uh, blame yourself. I mean, I'm trying to make sense from what he's saying. I think he's trying to say that um, African leaders, nyep, amatu youth movement or youth wing. Kon, this is very sad Ismaila Jack mu we need a mature leader xëccoo bi lañ fi wara a bàyyi ñiiroo ŋaayoo gi lañ fi wara a bàyyi organize yourselves mobilize yourselves you are confusing the young people history is going to judge you all history is going to judge you all for what you are doing kon gestu leen ko seetaat leen ko seggal leen ko bu baax a baax ngeen pare pour liggéey réew mi président Barrow nag leen lañ koo wax président Baro leen na lañ koo wax gorkadom wax waxeet gi nga def ni trying to consolidate yourself is unfortunate is unfortunate you are on record on multiple occasions saying that yow ku am businessman nga yow lo nguur yow da nga gis sa bop ci nguur ni ko waxe am quoting you jea konole jea konole quote on quote ngene dang ci gis sa danga tok gis sa bopp nguur yow dat July o August of 2016 kula la ne yaay nek president ni rew mi doko ko president baro Barrow gëmuloo won. so eventually so mujjee ñow nga tok ngene Gambien si three years dina bayyi comme niñ la ko yaga a dila ko fatali so bàyyee you will be champion of democracy United Nations and a lot of international organizations will consult with you use you as a consultant ngay dem di nek champion of democracy di dem di liggéey ci yenen dëkk yi am nga opportunity pour win awards yu bari xaalis di nga ko am di dem di joxe ay lectures nga binda book defar movie whatever you are going to do about your experience as the transitional government transitional president of the Gambia history will judge you positively waaye di jéem a taxawal sa boppa rawatina with baro youth movement ni ko kooku waxee léegi a youth movement does not take the country forward nañ dem sampa seen ndëndi boppa def li ñoo def before nga nekk président there was nothing like President baro Youth Movement for National Development musu ñëw sa office ne la dañ la bugg a pour taxawal li nga président bi moo so pour nga use sa influence pour am funding for those youth movements or whatever is unfortunate is unfair te da nga am national development plan nga am sa ministries si, am sa ministre yi am ñi la fa togal ño xamne ne ñooñu ñoo wara dépasse wala ño wara doxal nguur gi not nga indil ñu ay youth movement pour nyu doxal nguur gi ana nyu ana doxal nguur ana youth movement ana doxal nguur do indi ñi wara doxal nguur gi ñu doxal ko please ñu ngi pur ñaan pour nga respect lolu ñu ngi pur ñaan pour nga japp ci lolu president Barrow jàppaleel dëkk bi nga liggéey dëkk bi his new approach nag gis ngeen ko bi mu demee ba pour taxaw UDP gars yi taxawaluñ ko léegi gis nañ mu sampande ndam commencé di development projects President baro is doing quite a bit moom ak Macky Sall ñu ngee wax there is no doubt that Macky Sall is feeding him baro is following the Macky Sall model and footsteps even this breakup that's happening between him and and and and and and and and the UDP to a great extent. There's a great likelihood. You get them to ji fele ne la Senegambia bridge bi muy am bambatinda bridge bi the two of them will be there Them na basel launch na fufu. the next minute he will conquer the URR region mu university bi defaral bridge Farafenya defaral bridge Pharmacy, yi béykat yi seen problème ay la seen problème ay la seen problème jiwu la su naxee ñu ñu jox leen loolu there is no way he's gonna win their heart it's unfortunate di leen jox xaalis di jëndal gaay moto yeeg ño amin moto bike yeeg di joxe am am handouts of ten thousand five thousand twenty thousand ku nekk liy teg food on your plate is what you are going to endorse or support ñaareel waa Brikama dig na leen ne dina leen indil street lights with internet we see where he, go, he, he goes with it next election will be very interesting in Gambia li ko waral mooy Gambia tribal politics moo fa nekk yàgg naa koo wax tribal politics last election bi ma def analysis yi wax naa ko ne leen su ngeen seetee foñi gi yëpp dee voted fo Yaya Jammeh dëkki soose yëpp dee voted for I mean président Barrow Mama dëkki poll yu bari dee voted for him This is the reality. This is the reality. Yalla dogal olof yi ñoo amut fuñ fété. it's a fact Khalifa Sala ñeneen ñu ne du olof pël la Sala pël la ñi of course seen kër olof la olof la ñuy làkk moom la def but olof yi kenn du leen ray Nyuci, ñu ci bari si olof yi divided themselves ku ci nekk fuy sim sa ciéré ji ñooñu nga nekk di wuutal te olof ñoom ñoo loolu this is a fact i'm not trying to be politically correct here i am not trying to be politically correct i'm not saraxule yi ñu bari voted for Baro. this is the tribal politics that is in Gambia te dañ war a génnee loolu na politicians si ñëw teg seen manifesto nañ ñëw teg seen programme seen agenda ne man lii laay taxawal su ngeen ma taxawalee lii ak lii ak lii laa leen a defal ngeen sànni leen karta ñu sànni leen karta based on li ñu gaay tegal and not based on yofi mbokka yofi xeet and the like saa su nekk ma wax leen loolu kombo will be very interesting next election ñoom Amath Scatel Jaane ñu ngi fa ak seen parti bi UDP is there su baro ñëwee sampandendam maa ngi dégg bi ma interview Baba Jah dégg ngeen ko mu ne waa Brikama ñu ngi jéem a togga parti foofu noonu from what Baba Jah said this is a fact am na reliable information ne bari bu ñu ngi togga parti am na of course some parties that already came up even anyway and Amadou Kante of North Carolina di imam of of North Carolina Gambian community North Carolina mu ngi sampandi ndam pour taxaw independent there will be too many parties ci réew mi te ku si nekk each tribe suñ amee ñetta ñeneen juróomi parti yoo xam ne seen xeet la if the UDP think ok am nañ am loolu is the fact parti boo fi dem am na ñoo xam ne nekkuñ am am am am pôle Mama Kandeh am nañu ko support ñoo xam ne nekkuñ Pël Lawyer Darboe am nañu ko support ñoo xam ne nekkuñ Soose Yaya Jammeh am nañu ko support ñoo xam nekkuñ this is a fact Why so? ko seetee majority of ñi bokk ci tribe leader of the party bi yëpp moom lañ dee support this is a fact it's a fact whether he or she is a good leader or not kooku la support I'm not trying to be politically correct this is my analysis of what we have been seeing in Gambia fa di dox so kon dafa important pour ñu bàyyi loolu just because diw sa mbokk la diw sa xarit la diw sa rakk la diw sa kowooka la sa néebo la walla mooy siim sa cere ji bu mu tax nga sànnil ko sànnil ko ngir li moo defal askan wi bul seet yow kenn sa selfish interest this is a fact tu fekkee ne pol yi am na ñetta ñeneenti pol yu taxaw that will be very interesting today dañoo vote based on tribes the fuller votes will be am am am divided su dee dañoo vote based on amin ak tribe soose yi ñëw taxawal amin five six seven soose candidate ku si nekk si ñoom da ngaa korpati tuuti there no doubt nag dina am ñu gën a bari le waaye there is no doubt ne you will have that tri am am tribalist thing ñii jël pii ñii jël fële ñii joxe fële su dee based on gox la ne bari bu am na ñaar ñu leen taxawal wala am am am am na ñaar ñu leen taxawal wala central river wala lii these are the things yu ñu war a bàyyi nañ votal nit ñi based on dee leen sànni seen kartay based on li leen boromam di jaay ne leen lii laa leen a defal su nekké lu lañ jëriñ jëriñ askan bi ngeen taxawal ko président baro right now mu ngi busy he will try to do some development projects nga xamna na ne amul UDP pour sampan dendam pour Gambien si convince den pour ñu sandi ko karta kon li moy suñ analysis of the thing ah, ñu ngi leen ay bu baaxa baaxa baax um ñu read some of the comments sec Yo xam ñu ngi ñëw turu ah, ñu ngi leen ay bu baaxa baaxa baax baax Eh, ñu dellu si rek Susan Kamfo mu ne Barrow is hungry for power now ah, jërëjëf Susan ah, for the donation last week of course we put it out there ah, liñ leen wax nii rek liñ leen ñaan ne pour ngeen jàppale plateforme bi pour ngeen donate ñu pour ñu gën a mën a dépasse plateforme bi Susan moom nag donate woon ñu 2000 dollars ba mu dégloo programme bi ci dimanche bi ci londi bi la yónnee rakkaam foofu ca Gambia pour mu donate ñu am thousand dollars two thousand dollars ñu ngi koy béggee bu baax a baax di leen ñaax ne di same thing ku ci yónnee xaalis ci yéen rek Gambia mun ngeen a jox seeni family members suñ team bi 7833524 7833524 mooy di number in Gambia ñun dinañ ñëw jël si xaalis bi wala ngeen indil ñu ko Mohamed Sonko am Ismaila Jack mu ne we need a mature leader um, Taibu Sheriff Haidara mu ne Maimuna Cham you are right I am with you Cairo, Kebe Munepa they have read um, UDP manifesto in their Congress. Maybe you don't listen to all the programs. Yes, I did listen to the UDP um, um, um, uh, uh, um, uh, session, comme li ma leen wax am um, duñ rek di waxantu am um, lima ma wax mooy manifesto bi constitution bi liñ doon def ngi jublu won si consolidate UDP ak liñ doon def buñ demee ba pare waxtaan ak askan bi ne su ngeen ñu taxawalee lii ak lii ak lii ak lii lañ leen defal loolu lu am solo la ñu highlight ko waaye su ngeen sété congress bi it was all geared towards focus on trying to consolidate try to change the leadership am um, in a way boo xam dinañ fa génnee di Barrow camp this is just the fact most of the discussion the ambience the mood the energy everything was geared towards I mean geared towards loolu for the most part te foofu la ñoo um, ba sa xalaat la am um, respect nañ ko uh, tubaabu maane mu ne where were Barrow and dabo when um, Germany is deporting our Gambian brothers uh, foofu ma wax leen ko tuuti rek ma wax leen ko tuuti maa ngi gis messages both on YouTube and Facebook fan yëpp maa ngi koo wax we have programs and we cannot separate them su ngeen amee stories to tell contact leen ñu and we will be glad to give you a platform but you cannot continue to keep telling us to talk about something and we don't have the people, the victims. am na ñu ma laaj ku xam kuñ deport Gambia ku dellu Gambia jox leen ñu téléphone number send contact we will contact them if they are willing to talk we'll talk about them or we'll talk to them su fekkee ne yow dañ la war deport nga Europe ñu war laa deport we know it's a concern for you guys contact len ñu ñu si but we cannot be having these programs and you continue to send messages asking us to talk about the deportation ugly every single day demba bi ñoo def meññanta waxtaan naa si barki demba bi maa interview open my crew bi waxtaan nasi. si ak other eh, eh, um, people te am solo la um, uh, Raito Park, when, the struggle was hard, GDP stand was to entertain the Gambians but not uh, politics. Uh, Lutah Gambia Rudem Show Day has been there for the longest we are still doing our entertainment. The past three days, we brought you a lot of entertainment shows. And if you follow our platform, we are still specialized in entertainment. We do cover political activities, as you can see. Politics is in the um, uh, uh, center of the country. Even the people we promote, the musicians, etc., are doing politics and singing about politics and talking about politics. And the Gambia has changed. And yes, it's about time that all Gambians have a say in the political dispensation in the political affairs of the country te loolu daf fi war a sax soo weede yaa ngi doon wax oo waxut façon critique yi bu mu la teree wax ku nekk na nga wax ndax sa gédda la loolu ngeen bëggoon ba tax ngeen vote Yahya Jammeh out pour ngeen mun a wax kon ku nekk na jog pare pour wax ah, mu ne show bro where dem ah, Susanna mu ne Barrow is hungry for power Talib mu ne don't mix Gambians ah, Jack Jallow mu ne Pa thanks for your analysis We don't need all these so-called uh, movements. The president should concentrate on building strong institutions in the country, not to consolidate himself into power. A very good point, Jack. You are very right. Lola Waradef said, "Nakala def seet naka laa développer réew mi naka laa institutions def reforms wecci constitution bi joxe lenge yi ñeneen ñuy take over from moom fi mu em comme ni ko waxee Yaya Jammeh ci vidéo bi nga xam play naa ko ci gannaaw mu ne ko thank you very much ci li nga def ñun dinañ continuer from fi nga em moom it na joxe lenge yi ñeneen ñuy ñëw ñu take over from moom fu mu em um, Taale mu ne why he will not they uh, are part of Gambia Junior Juuf mu ne why they deporting our Senegambian that's uh, what I am asking uh, foog na loolu wax naa ci gannaaw ne bro you are lies don't mix Gambia Mohammed Balde mu ne good bro where they borrow and double deport deporting people will never speak up Ah, Harriet Jena mu ne very true brother um, Sise uh, mu ne forget about tribes we cannot forget about tribe because it is the fact and it's the point Jack mu ne this government is transitional Barrow is aware of that so let's call a spade um, uh, thanks uh, Ibrahima Jaw mu ne we have um, known also the president can't um, everything we want in this time maybe next time when he win the election, he will have what we want is good. Also, we say what we want. He knows that, but he can't do it all. It's not only him. I say all these people standing for um, election, win the election, can't do it all. What we want. Ah, li ma jéem a wax rek président mënut kon ku nekk da ngaa toog nga pare joxe lengey comme ni ko Barrow waxee Yaya Jammeh Mamoud Ceesay mu ne Pa Ousmane you hater you heart is swallowing Sar Meke Leke mu ne Chey Gambia, may God guide us. Pa Usman, you big hater. Your heart is swelling with hate. Aisha <laughs> mu ne Gambia is very sad. Lamin Baro bro keep kon jërë ngeen jef ñu tëj rek by Edda President Barrow pour mu bàyyi xelam xam ne history will judge him and I wish he be part of the um, books um, of history. Uh, Marie, some comments coming from uh, YouTube. Hansen Mune, no hope on Barrow if he stay longer, he will become a dictator. No hope on Barrow. If he stays longer, he will become a dictator. Uh, same Dabo Mune, my own point of view, Mr. Dabo should not be vice president. We have many intelligent young people and very smart. What about those people who the form government kill them? Um, this is not personal issue. Usman Dabo Mune, I think we should together and build our country. Same Dabo Mune, I think it is time now Barrow to talk with Mr Dabo nañ waxtaan seen différence nañ gëstuwaat seen boppa ñu seetaat seen différence ah, su ko defee ñu yóbbu réew mi kanam ndax yóbbu réew mi kanam rek moo am solo ci loolu la gaay war a taxaw ci loolu la gaay war a góorgóorlu ñoom ñaar yëpp kon lii mooy li nga xam ne xew na si suñ dëkk bi lii moo tax Gambia du dem semaine bii ñu toll am président Adama Barrow National Assembly members yi lawyer seenu Darboe and of course waa APRC li nga xam ne moom lañ jot a def ah, lii mooy li nga xam ne moo xew ci Gambia ci jamono jiñ toll nii until we come your way next week don't forget to share the video du leen wàññi yeen waaye dinañu yokkute dina tax ñi nga xam ne déglu déglul wuñu woon lii ñu dégloo ci jàngee ci dégga i facts and some of the things that we talked about um, loolu dina yokk askan wi xam-xam ndax askan wi suñ xamee rek xàmmee ràññee duñ réer te su boobaa dinañ mun make informed decision te lu am solo la kon su fekkee ne ñun ñu ngee contribute in helping you to be able to make an informed decision about your life and livelihood kon ñu ngi leen ñaax ngeen jàppale ñu yéen ñuy seetaan ci Facebook bi if you look next to your comment section di ngeen gis that green am circle with a love sign in it su ngeen ko cliquer it will lead you to be able to um, uh, sponsor us by donating five dollars every month su ngeen ko munta def you can click on the link that I send pour donate um, through the PayPal one time any amount you want wala boog ngeen jàppale ñu by sending your money to the Gambia <coughs> excuse me through your family I was here for the past two and a half hours talking to you guys and giving you some analysis of the current political situation. Luta Gambia to them solar man you've neckal on microphone bit till we come your way next week. ëllëg incha allah maa ngi aman interview with former minister of information DA Jawo ah, moom mi nga xam ne kat moom la Yaya Jammeh génne woon bi nga xam naka Adama baro bi nga xam ne mu ngi reshuffle cabinet bi moom moo nekkoon the first Gambia's information minister under président Adama Barrow moom laay interview ëllëg um, at 5 p.m. Gambian time. Again, follow you if you haven't liked our Facebook page. Like ko pour déglu ñu foofu su fekkee ne subscribe to our YouTube channel be right now lagal nga subscribe follow us on Twitter and Instagram and Snapchat as Gambian Talents. Share our videos, share our posts, listen to what we do. I mean, donate to us, contribute to us financially. We are a non-profit public broadcasting network. We don't want to rely on government because um, kula abal bot wax la fi nga xoolee we don't want to rely on corporate sponsorship because kula abal bot wax la fi nga xoolee ñun yeen nañ bugg a nekk seen i gémmeñ yeen nañ bugg a nekk seen i bot yeen nañ bugg a nekk seen i noppa kon jàppale leen ñu by donating to us su fekkee ne gis nga sa boppa ci li ma wax wala li fi nekk wala góom nga ko wala yaa ngi ñuy bégee kon wan ñu ne yaa ngi ñuy bégee by donating to us financially five people are the ones who have subscribed to this since we started it last month and we have over 90,000 followers we need at least 2,000 to 3,000 subscribers subscribers for five dollars a month kon ñu ngi leen ay bëggee ba beneen jamono ëllëg ngeen déglu ma with am um, am um, um, DA Jawo ngeen seetaan suñ Semester Avenue show bi ñu ngi war a interview Musti Jabang moom mi nga xam ne APR PPP la of course from the UK Musti Jabang from the UK la ñuy waxtaanal ëllëg ci Semester Avenue man ma indi leen fasa à face with DA Jawo kon jërë balaa maa ñu naan tekk bi du kalama de nunan te dem wai moi de me feka elen te buka wana si yen mi kondu noki oxygen pa usman ma mic talk to gambia du dem yelen eh dem pa usman pa usman gambia du dem show every sunday la on gambia talents radio hosted by pa usman and ivasa oh 6 p.m. la gmt just just in case you ain't know. Knew them, knew them, knew them. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman Juf and Eva Sad Oh 6pm let TMT. just in case you ain't know New them, new them, new them Para ñaanal, Gambia Pa Usman, Pa Usman lañ bokk Ilim ko sa baba Killer A Sunday, Sunday